bëgg nga gis boobu daaw te bii pare ci daaw bi man nii maa lay dund rendez-vous le 29 juillet incha allah ànd fukki pàmmal. ànd fukki pàmmal. jadi jadi jangan tahu dooree nag muy diggante Ameth Ndoye ak Nittu Dof moom nekk ginnaaw euh, kàddu yi nga xamante ne kii di Nittu Dof yëkkati na ko indi na ci ab tontu euh, ñu déglu jëkk Ameth Ndoye kàddu yi mu yëkkati. mais sa diggante ak Nittu Dof lan la lu tax muy génn di la clash di la saaga ak affaire yooyu. <laughs> yëg billaay yëgu ba ko woon. waaye <laughs> gis naa benn post bu mu def ah, bind ci saaga la après def ni loxoom bi je sais pas euh, sur Instagram laa gisee boobu post. xam nga ñàkk jom koo xam ne foo ko fekk day tooñ mujj gi mooy baalu koo fekk koo xam ne foo ko fekk combat bu ne am na ko mm-hmm. mujj gi mooy baalu man duma ma wax ak tàppet koo xam ne làmmiñam la yor Facebook ak ay Instagram rek la yaakaar chaque jour di mobiliser booy jénn leen mosoo koo gis manifestation muy ngand ngandul mosul am mm-hmm. bu weesoo ba mu fi saagaa ñu fekk ko këram jàpp ko wax ma ban foron nga ko gis mu taxaw ci kanam di ko ñàkkante dama am ay copain Louga xam démbam xam tayam qu'il fasse très attention. Ah lii ay menaces man moo ko naa sama xarit la Fallou nit dof sama xarit la Met Metal sama xarit la début carrière yaram fekk ma fi muy jóge Paris ñu ciy jàpp muy yéeg ci ay concert moo fi tooñoon dip di ko neexal moo fi tooñoon Canabasse di ko neexal moom moom nii la baaxoo oui ma Tout ma je te jure. ok tu es d'accord avec euh, la nomination de Pape Alenia non. pour la bonne et simple raison. c'est pas un poste journalistique Nous n'est c'est pas un poste journalistique xam nga le le rédacteur en chef du ma wax mhm. bu le directeur de l'information du ma wax mhm. bu ñu ko defoon li nga que yeneen xeetu poste yo xamné c'est journalistique quoi parce que métier bi mën nako man musuma weddi lool mais quand même bi gestion d'entreprise la management là musul nek fenn ci carrière rédacteur en chef musuma ko dégg jiite sax ab rédaction suñ ko defoon DG RTS duma bañ mais poste directeur général RTS bi daaj e yenen responsabilité yi fa am yépp yow sa ndodd la ñuy tëdd nga war leen manager lool c'est pas du journalisme encore pour une fois j'ai rien contre lui man la question où je me posais moi lan mo tax defuñu ci càmbar yañ ñu waxon mais ma japp ne ak sama ngëm-ngëm ne du mom lañ ko wara jox du ñak mérite du iñaan du soxor. Mhm. manuma ka yor aw ma njàng mi aw ma diplôme lan laa ko ci soxari lan mais. Mhm. mais sama xalaat laay wax am ñoo xam japp nañ ne war nañ ko ko jox ñi wax mérite yi xam nga fuñ koy tek mo doon combat ba muy ñew côté côté moral aussi ñun ñep xam nañ. Mhm. voilà bëgguma ci dellu si waat parce que mooy loolu. ci yenn kilifa yi lay ñaan yi bëggul nga wax ci. mais ci nomination Pape Alé Niang boobu dama gis ñi nga xamante ni ñooy wax ñëpp euh, ci seeni wax boo dégloo bu baax dañ naan la euh, bu fekk. nice nii dañoo faale dara ñii de ay guerrier xoolal te du gis nga sama yaay léegi. da doon raag si. Mm-hmm. <laughs> waaw da doon raag si dafa yaakaaroon raag day am ma ne ko dara amul ma ne ma. mu ne ma gisuma sa benn vidéo ma ne ko mais samedi ak dimanche bi la liggéey ma mu ne ma non damaa yaakaaroon ne saaga yi wala menaces yi moo tax nga reculer mu ne ma amet bés bu saaga wala ay menaces taxee li nga gëm continuer woo ko yaboo ñooñu man nga yab. ndax man juruma tàppet Abdou Salim. bu weesoo kooku waroon na nit te dof da nga tudd ko sànq. Mm-hmm. doo dégg ku ma yóbbu ci yoon. parce que mom il faut que ma lijjanti sama ka ak mom commencé wul léegi xam nga lu ko naqari. Mhm. lii booy yi di def ni mom ñoko degg ndo mu nek kaddu yi nga xamantene ki kii di Ameth ndoy mo tontu nitu doofa nee na ko na moytu ndax xamna dembam xamna tayam na eh, li moy Sénégal jotel mu nga xamé sa demb ak sa tay <laughs> bu yebbo nga nopi ma mëna wax di nit wu ma nak damay waxtan rek. Euh, Ameth Ndoye nee na xam na sa démb xam na sa tey fas ci fait très nee na yow say début xam na ko nee na amul benn benn front boo mës a jiite ñàkkante ko nee na dangay wax ñu jël la dem tëj la te fu mu da ngay xaar da bëgg koo xamante ne nga jotel ak moom ñu la plainte tëj la tabaski bi fekk lu ko du ko nangu du la ko may nit dof Ameth ci sama sama xalaat bu gàtt lii lay wax neena na dangay tooñ ba ñëpp xam ne yaa tooñ ko toog ba baalu ak parce que amoo jom du samay wax de amendoy Ndoye moo ko wax man dama yaakaaroon nag amendoy ak nit Doff dañoo jàppante di xeex loolu mu wër waye amendoy nit Net Doff moo la gën a taxaw de physiquement physiquement <laughs> yàlla baax na lii amul moo dina am blessé de nit dafa tamit dafa toog ci plateau bi naan du ma wax ak moom nawloo ma ko amul jom lii ko am jom yéen ñaar ku ci yéen ñaar si yéen kan moo am jom lii faw ñu dëgg ko face to face faw ma invité nit dof fii invité Ameth fii jàkkaarloo ak yéen faw ma def ko mhm. ba tey ci seen scandale du jour VAR toujours VAR kan la ñuy VAR ñu dem seetaan vidéo bi ñëwaat République a reçu le président de la République a reçu dans la soirée Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, aujourd'hui à la tête de l'Institut euh, for Global Change. Il s'est dit honoré de rencontrer le chef de l'État et de découvrir sa vision. Les échanges ont permis de poser les jalons d'une collaboration avec le gouvernement sénégalais. <laughs>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

Ki war nañ ko mëna a fay de kii xam ni salaire am ci match bii mu défé VAR ni xawma ban match la Pas parce que man ay match yoy man Sénégal bu football lay seetaan ak Mbappé bu football bu wéso Mbappé ak Sénégal man wala Sadio di seetaan Sadio di football nek benen équipe wala Ghana di football nek benen équipe yoy lay seetaan mais dama ni kii kii ki xawma li ci ban match la won mais ki daw ni arbitre moy borom lu lan la sol ba bàyyi waaw bula borom lu bula li koku war nañ ko delo njukkal koku amel nañ ko ak kooku amee mën man vaar yëpp kooku laay gis muy daw naa nii wàcc ku vaar yëpp vaar vaar vaar ba du ba mën lépp vaar yi ñu koy vaar yëpp nii la def nii nii mu nii lay wax kii amel nañ ko njukkal kii sonal nañ ko kii fëtt nañ ko ma ñëw ci vaar bi kii ba du mën lépp dafa ni Ousmane Sonko mu ne kii di Macky Sall ñii ñooy ñooy maanaam ñooy waxtu ci ay noppam ñoom ñu maanaam ñoom ñoo koy conseiller ñoom ñoo koy wax yi muy def maanaam yenn yi mu nekkee maanaam teyu ko ñii ñoo ko koy wax waxlu ñoo koy souffler ci oreillam Tony mi ci la bokk moo nekkoon moo nekkoon jamonoy Macky Sall moo nekkoon moom moo nekkoon ministre britannique léegi nag xaw ma mu bi ministre la xaw ma ancien ministre la mais daal britannique ministre britannique la woon da daan seet si Macky tout le temps ñëwoon 2017 di ngeen Sonko lu mu wax léegi nag kooku ñëwaat na si jomaay lan ngeen lan la ñuy mën a xam lan la ñu mën a dégg foofu lan ki doon wax ci Macky moom nee na da koy dénoncé ñëwaat na di wax si jomaay ñu ngi koy déglu ñu ngi koy xaar vaar bi ñu koy xaar Tony mi lan la ñu lan dégg ngeen lu mu ñëw def di wax nañ lan la les raisons de sa venue ñoo xool vision wu président bi Bassirou Diomaye Faye te moo doon murmuré ci nopp Macky Sall maanaam waxtu ci nopp Macky léegi na ñëw na si Diomaye xaw ma dina wax xaw ma du wax mu ngi noonu daal vaar waaye boroom lu bële lii arbitre bii arbitre bi est-ce que du égyptien sax ñun sonal nañ égyptien yi de kii bu nekkul égyptien dina nekk marocain xaw ma daal kan la ci xaw ma lii ban match la waaye vaar bu nekk moom la ñuy utiliser yàlla baax na ba tey ci seen scandale du jour ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. mais man dama jàpp ni. kilifa gu ni toll waroo mën a taxaw jàkkaarloog askan wi di wax loo xam leer na ni bi wax amut lolo Afrique rek lañ ko ñeme boo ko defoon Europe wala nga def ko feneen doo doo doo fanaan en tant que premier ministre parce que homme d'état dafa am lu ñu xaare ci yow askan wi dafa soxla dëgg dafa soxla xam lu xew xam lan dox ci mi donc soo ñëwee yow ngay homme d'état. mi la mi mooy campagne ba la amul dafa tardé réew mi. mu tardé réew mi sax xamu ko. lii lépp c'est une question de ak électricité ak ndox ak gaz dina wàññeeku ci Sénégal ak yeneen. loolu su ngeen ne mën nañ ko def mais ab kilifa gu toll noonu nga ñëw taxaw jàkkaarloog sa askan c'est vrai que ñu ñun jaano pays dañ naan partout sax dañ naan le premier ministre fusible la. même su na naree jaxasoo moo war a ñëw encaissé. Mhm. mais soo waxee loo xam ne démontré nañ ni lii amut. yow waratoo continuer nekk premier ministre parce que sa crédibilité moo entamé wu. foofu laa xam nga léeg ñu ngi ñuy interpellé ci wàññi dund gi wàññi dund gi dund bi fan la jóge ak kan moo ko yokk balaa ñun ñi egg ak lu tax mu yokk bu soobee yàlla nag dina wàññiku dinañ ci waxtaan ak sénégalais ci fan yi ndax lañ cee liggéey. day day day démissionné waay ndax nag ba du mën lépp liñ la ci wax yëpp liñ la vaar yëpp ba tey yaa ngi toog ci PM bi ah yàlla ba man de man jommi man man man man ba du mën lépp ba du mën lépp waaye ba du mën lépp xaw ma ku ko tàllal micro waaye tooñ nañu ba du mën lépp moom moom moom moom micro mooy noonam moom noonam première noonam son première ennemi ba du mën lépp micro la micro lu mu wax micro ko ko yobé manam dafa am faiblesse micro li bu mu koy wax ndeysaan il était très lucide nak bu muy wax li yi ta yoy dafa le won ta yoy ba du mun lepp ndeysaan dang kay gis fanko ko he avec le temps jiko du nëbb nak jiko jiko du bo duggé ci kër ci buntu ba la lay xaar bo yéexee mu ne la ni batay ci sen scandale du jour ñu Songko ji Ousmane Sonko kaddu mu yëkëti ci Grand Théâtre démb ci dimanche bi nga xamanteni nañ ci mu le 9 juin. ñi doon wër di wax dem ci kër diiné ne leen ñi ay extrémiste lañu ñi ay jihadiste lañu tay am nañu gatché waye ñi leen doon deglu tam ba gëm ko te mu non nak deglu leen alcorane wax in jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu ñi choses doon déglu ci loolu ñoom it tey. Ofen man waxuma sont ay match Sénégal bu xewoon tout ça mais y a des choses yi nga xam qui sont dans l'urgence dama xam yow yow nga kaas bañ jox la ak fi Sénégal toll ñu une semaine mooy y semaine des wax qui ñu ne leen jëm xaar amul dund bi kilo ceeb yokk courant yokk lépp yokk yow ñu ne Sénégal dañ dañ dañ pour pour nga dimbali len comme ni ngeen ko tuddé manam yeen mun nañ leen woowee des mercenaires yeen ngeen ñew man damay laccé ndax dafa am élection yu am wala dafa am campagne yu am wala li à l'instant le feulé ce esplanade grand théâtre au fait Ousmane Sonko mom ba légui il est dans l'opposition lay laccé wala ba légui dafa am campagne yu muy waajal wala nu démé demee mais grand il y a des choses qui sont plus urgentes actuellement ni ni ni ngay def ni amna lu ko ëpp solo ay grand théâtre politique mais li ngay def c'est dépassé grand tu n'es plus dans ça encore une fois bu ñu ah, opposition wala da ngeen wala dara mais sénégalais yi ñu ngi xiif sénégalais yi dañoo sénégalais yi leneen lu préoccupé seen yi ngay politique li ngay def amul sens grand li ngay def amul sens il faut que. man man xam nga da dem bu bëgg am espoir désespoir bi ñëw këpp lépp parce que man man dama maanaam conférence bi conférence bi mu def démb lan la koy apporte lan lay apporter ñun sénégalais yi quest est-ce que wax na fa lu bees loo xam ne ñun xamuñu ko o oh, man loolu laa bëgg xam est-ce que moom wax na fa lu bees loo xam ne ñun xamuñu ko est-ce que ci conférence bii am na lu mu doxal économiquement suñu Sénégal gi est-ce que moralement am na luñ ci for moralement liñ ci for baaxul parce que nettali lañ ci for nettali ak wax wax yoo xamante ne tegewul fenn ci man sama xalaat sama xalaat la maa man man maa wax sama xalaat la maanaam moom discours bi mu def démb te di depuis à la fin ce que ça nous apporte ñun lan maanaam lan la ñuy mën a indil ci lu bees à part a yokku xalaat yu tordu à part yokku ranking yi à part perdre du temps mais lan mooy problème mu PM lan mooy problème boo waxee nag de nit toog naa fekkee naan non Ousmane Sonko parti Ousmane Sonko parti Pastef soxla guñu ko Ousmane Sonko xam nga lan la war a lijjanti PM bi mu assure ko. chef du gouvernement mu assuré ko nekk côté Diomaye def liggéeyam ba élection législative yi di ñëw ñu am majorité locale yi ñu am majorité. la question qu'on se pose ndax il est toujours dans l'opposition man je me dis c'est le principal opposant de Diomaye mu ngi wax nit yi féewale ko ak mais la ban importance la amal nit ñu féewale ko ak Diomaye tant mu ngi liggéey. ñi bëgg a diggante moom ak jomaay kay mooy dañoo gis ni jomaay dafa bëgg a def moom bëggul def te day yàqal jomaay te moom amul compte bu mu ñuy rendre jomaay moo ñuy rendre des comptes moom mooy le président de la république moom moo waat dégg nañ ko mu naan tapis rouge bi dinaa ci dox est-ce que est-ce que est-ce que mentalement ça va tapis rouge bi boo ci doxee boo ci doxul lan lay wàññi Sénégalais yi est-ce que loolu apporter nañu dara économiquement est-ce que wàññi suñu pauvreté. nga dox ci tapis rouge beeg tapis verte bi lan la ñu apporter lan mun ñun lan lañ ciy gañe yow tapis rouge bi waru la yow li la waroon mooy fauteuil bi bëri wax ak ñeme wax ak amu fit moo la yóbbee li di nga dox ci tapis rouge bi da waaye ca gannaaw ngay dox boo doxee ci kanam ñu critique la yow kay da nga waroon dox ca kanam am ñu topp sa ginnaaw ngay signé di di di di di nommer di dindi di voyager en tant que président de la république di di di di di di di di di di bind ay décret di sant ñuy ñuy doxal ngay dox ñu xàllil la yoon yow looloo moo loolu moo nekkoon sa ndam bi nga doon namoo waaye tapis rouge lan mooy tapis rouge xanaa kay ñi am audience ci Diomaye sax dinañ dox ci tapis rouge bi lan mooy tapis rouge ñun lan la ñuy gagné ci dox nga ci tapis rouge wala doxoo ci tapis rouge dox nga ci tapis rouge xoolu kan lay nakkari wala xoolu kan lay neex ñun li ñu nakkari chaque jour sénégalais yaa ngi la koy wax. wax ci dox ci indi si ay jéego yow nga dox ci tapis rouge ñun lan la ñuy apporter nga sox ci costume yi lan la ñuy apporter jamais au plus grand fii ba deux mille vingt neuf doo dégg président de la république amoo makkaama bi doo ko dégg PM ngay nekk mën nañ la fa dindi à tout moment moom nag day anticiper ci suñu mental yi. ñi bëgg a tas sa diggante ak jomaay li tax ñu bëgg a tas diggante jomaay parce que dañuy gis ni yow ca la ngay doxal ak jomaay lu muy doxal bokkut bokkoo leen vision jomaay moo ñuy rendre compte 2029 bu fekkee nag jomaay day doxal lu ko neex ndax soxlawul deuxième mandat na def ko neex waaye nag président de la république moom yow doo ko dégg mille fii ak 2029 li nga dox ci tapis rouge bi de waaye du saf neex du neex ndax Dakar du saf ñaari yoon muno defar sa Dakar macc ko ba mu jeex sottiwaat ci ndox loo ko defar defar du saf kenn fay saf mooy Bassirou Diomaye fay yow safoo dara yow waroon nga mën a saf en tant que premier ministre élégance charisme wax wax yu responsable yow ti devait être une personne boo xam ne dañu naan ah dikkite nag nit a mën a soppee xam nga xale bu jigéen dañuy naan amul jikko tàng seyiwut yow ci bokk ci yooyu nga waroon bokk yow dañu waroon ni ay waay dëkk te nag opposant nii la war a mel waaye nag yii gis ngeen ko bi mu nekkee premier ministre ba léegi Patak organiser la boole di indi ay contrat di dem lijjanti lu mu doxal Sénégal woy boobu nga waroon wut waaye taxaw fee takk sa micro waaw maa ngi dox ci tapis de rouge tapis rouge boo ci doxee ñun lu suñu yoon ñun lan la wàññi si suñu dund nga dox ci tapis rouge solal lu gën a cher doo dégg président la république doo ko dégg président parti Pastef ngay dégg président de la république moom doo ko dégg 2029 de xanaa yàlla rek xam waaye fii ak 2029 jomaay moo koy dégg yow tapis ngay tiitaroo dox naa ci tapis rouge yaa ñàkk li ngay tiitaroo nag dëgg dëgg dëgg yow seize bi nga waroon tok bëri wax moo la ko yóbbee li ngay tere journaliste yi nii moom moo la yóbbee diffamation diffamation moo la yóbbee ñàkk toog ci seize kon priorité bi, yow da nga ni tay <laughs> dox ci suñu mayen dem na ba ci biir discoursam mu nan waw duñ ko defar sa ci ben wer ñaari wer duñ ko defar sa ci ben mandat da nga anticiper mënoo ñu lóori nit da ngay nité ma nga nek ku biiru cin ñu lay ci casserole yi premier ministre nga tay même bo nekké président parti Pastef lan moy parti Pastef du ay nit fa nek du am ñu ñu am yaakar ci yow ño fa nek ça te permet pas de faire tout ce que tu veux et de dire tout ce que tu veux da ngay nawlo ñi nga andal wax li jara wax yu lan mo fi ñor buñ koy match luy problème bi waxtaan waxtaan bi nga waxtaan ak jeunesse lepp lo fi wa waxon nga ko ci bi ngay opposer mo taniti na na ngay opposer wala luy problème bi magistrat yi dinañ len dinañ len fi jëlé indi ñu bëstak ba tey yow la te nettali bi danga ko baax nettali bi baaxul soxla nu homme de détail homme de homme d'état lañ soxla homme d'état koo xamante lépp lay jël daal di teg concam nii secret juge bi nga bi nga nettalil nii ay mbiram kenn da koy nawloo lii kenn du ko nawloo ngeen baal ma mais kenn du ko nawloo parce que moom bu foree ay vidéo sa vidéo ñi bokk ci yow dalay woo aviser la juge boobu naw loo tuñ ko est-ce que juge boobu mérité na yow li nga def est-ce que juge boobu mu koy def mu ngi xaar nga taxaw ci podium nettali ko lu la sonal nettali la ko yóbbee luñ la waxal nettali la ko yóbbee kon VAR bi yaa ngi koy dégg kon VAR bi yaa ngi koy dégg dégg ko moo tax démb nga wax ci sénégalais yi mënoo leen tere VAR ndax yow yaa ko digle yow yaa fi toog 2STV vie nga ne nit war na mën a jëm wax loo xamante ne danañ dem vaar gis ne li nga wax bokkut ak li nga wax tey yow yaa ko digle bañ nga ne nga nga ne vaar mu ngi fi ku fi wax lu war xale yi vaar la yow léegi ñu lay vaar ngay tiitur naan man kenn mënumaa vaar yow buñ la vaaral ku ñuy vaar yow liñ la vaar ci àdduna yëpp ñu ngi nii ñee xale yi nee nañ saison 2 bi jàll saison 3 bi day ñëw dugg est-ce que ça il faut respecter les Sénégalais ci liñ lay xaar ba tey ci scandale du jour ginnaaw loolu le jeune bii nii moom il est conscient donte ànd na ak Sonko ñu dem déglu ji lu mu wax. ba tey ci seen scandale du jour de ce 10 juin ñu déglu ji Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ci mbirum ah, presse bi vidéo bi ñu de dama dama bëgg ñu déglu ji ko ñu déglu ji ko. semaine passée. ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacé magistrat dama kër monsieur le ministre defal sa liggéey ñun newuñu fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu lañ doon xeex dépp ku la laaj kan moo la laaj kan moo la laaj ku la laajte yow ku la laaj lu ay man ñun fu ñu jëm kan moo la laaj est-ce que ministre de la justice bi mu ngi doon xaar nga taxu ci pëjam nettali lii bi mu lay woo kenn da koo fekkee kañ ngay noppi kañ ngay wax lu nit war a wax kañ ngay am bàmmeelu biir lu am solo la nit da am bàmmeelu biir vraiment ah doy na war lii kenn xamul lan la ba tey ci seen scandale du jour Ousmane Sonko waxam démb ak waxam tey ci mbirum presse ak ci mbirum jëlé dara ci internet bi ñu dégglu ci ko ñëwaat. man journaliste la rek liberté de la presse mën na xey bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la lolu jeex na ci réew mi. dem leen ngeen code de la presse article article lan journaliste dem jël ay affaire bind naan dañoo dàq général sangam Sonko ko dàq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay la ñu ne ñu ne la fan nga internet bu nekk fan loolu jeex na ci réew mi. ndax dégg di boobu may wax mu naan ma xaw ma la nag lan dossier diffamation may wax fii ñëpp dégg ko diffamation amul diffamation amul ndax dama liir benn document boo xam ne rapport IGE bu nekk ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko moom Mame Mbaye Niang ci ay tooxi joone yi mu def moom ci Prodac ma waxaat ko fii ñëpp dégg ko man maa ko wax waxaat ko fii baamu ko nee naa leen borom lu bula lii ameel nañ ko njukkal borom lu bula lii kii dem ci vaar naa nii ameel nañ ko njukkal de lañ koy won yëpp euh, Ousmane Sonko dafa ni mayetul benn journaliste mu bind dara ba pare buñ ko laajee mu naan ci internet bi laa ko jëlee Ousmane Sonko li ko xañ candidature li tax déggul premier président de la république wax loo xamante ne nee na ci internet bi la ko gisee la woon moom dafa njëkkee wax dossier bi mu ngi sama téléphone teg buñ ma woowee dinaa indi preuve mu ngi sama téléphone ñu woo ko mu ne dafa jaawale ñu woowaat ko mu ne dossier bi ak Ziguinchor ñu woowaat ko mu ne du dem wuyu ji taxaw fële ca Kër Massar plus de deux mille personnes wër mu ne diffamation amul de ndax la ma wax ca internet bala ko liire ousmane songo moomu tey ginnaaw bi mu waxee loolu ñu condamne ko six mois sur si tegal ko ci amende deux cent million génn ci loolu ousmane sonko ñu daal di koy ne rapp ci kaso gi génnut nekkul candidat jàllut ousmane sonko moomu tey moo taxaw mu ne mayatul benn journaliste jël dara ci internet bi bind ko daal di ne mu ngi nii ñu laaj la foo ko jëlee nga naan ci internet bi laa ko gisee ñu ngi laajte lan mooy rapport deux discours yi deux discours yi mooy ko Ousmane Sonko moo fi njëkkee wax luy tukkil àdduna ba am ay nit yi ci dee am ñi nit yi ci laago ñu laaj ko mu ne ci internet bi laa ko jëlee un intellectuel comme lui un homme responsable comme Ousmane Sonko mu ne moom li lu xale bi li song li li li tax xale yi génn as yàq ci internet bi la ko liiree. moom moo ko wax nee na tey nag mayul benn journaliste baax na ci journaliste c'est bien fait pour eux ndax naa fekk ngeen journaliste yi bëri na ay naafeq bëri na ay vendu bëri na ñoo xamante ne dañoo am complexe jëmm ji taxaw bëri na ñoo xamante ne jàpp nañ ne jëmm ji bu ñu waxee ci ñoom dañ leen di rey mbaa dañ leen di noot jàpp nañ ne bu ñu jàkkaarloo ak jëmm ji amuñu sax pour poser ko question ñu mérité nañ li baax na si ñoom nañu jàpp ñëpp journaliste yëpp nañ leen tëj ci kaso gi ndax nag gis nga nit boo amul fulla nee nañ saya ak sabab mën nañ laa jur waaye fulla ak fayda boroom yaa koy wutal sa bopp sagam nag dafa am ay mercenaires am ay journalistes yu woya di ñàkk fay fayda manqué ba tax nag lu leen neex waa ji jël ko rek daal di leen koy teg ba pare teg ci ay menaces boobu ba léegi dafa njëkk ne du leen rendre compte parce que doo leen ay nit peuple bi lay rendre compte démb taxawaan na ne mayatul kenn képp ko wax dañ leen rapp ci kaso gi waaye nag nañ ne rapp ci kaso gi ñëpp ndax amoo leen am na ñoo xam ne ci ñoom amuñu jom amuñu fulla amuñu fayda ñoom xalaatuñu ba ñuy jàng xamuñu jëmm ji jëmm ji participé wul ci seen éducation ba tey ñu yegg fu ñu yegg gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi doyloowuñu yàlla suñu boroom baax na si ñoom man dama kontaan ngeen baal ma nag mais je tres très sincère ci côté boobu Ousmane Sonko li mu def man dama ci kontaan parce que nit boo amul fulla nii la ku nekk day ñëw dox ci sa bopp dem yoonam faj soxlaam dem yoonam Sonko vous a utilisé Sonko fu mu leen masaana wu ñaata journaliste ñoo fi naan lacrymogène ñaata journaliste lañ fi duur xale bu jigéen bu ñu fi méjoon ci manifestation ndax bëgg jël ay images bëgg a partager l'injustice bu ñu doon subir loo Ousmane Sonko ak jeunesse bi tey c'est ces mêmes journalistes que Ousmane Sonko a poignardé dans le dos en les menaçant naan leen ay ku jële loolu yow moo ko fi njëkk jël Ousmane Sonko était la première personne wax wax ba pare. wër wër wër wër ba xamul fu muy teeru naan ci internet bi laa ko jëlee kon tey bu bañee ko jëlee ci internet bi am na si droit waaw bu ko neexee ndax boo dajee ak ku woyadi lu la neex def ko boo fekkee nag am na ay journaliste yoo xamante ñoo woyadi ay ñànkataan lañ maafe bu ñoo tegee seen kaw ay ca nañ dem <laughs> euh, danañ xam ne am na ñoo xam ne waa mu ñu buur saay buur dee buur dee na rek lañu xam

ñii mën a wax lu ñu wóor ñëpp loolu daa mën a ne Ousmane Sonko bu na bàyyi li muy def lu si waaye wax na la wóor loolu daa mën a ne. loolu yaakaar yéen yéen ko war a gën a bëgg. non bëgguñu ko bëgg loolu bu liggéey bu daa amate kon bàyyi liggéey bi xanaa daa mën a ne lu fi waaye di wax na la wóor. parce que loolu da nga am preuve waaye loolu dañ si mën a am preuve. ah kon mënoo ñu waxtu yàlla ngay wax. lu wóor yàlla mënoo di ko wax di am preuve lépp ngay wax nit ñi continuer di top topp gis nga bu fekkee ne tey ji looy waxati am na fi ñoo ni mbooloo mi leen topp ak ñi leen di tàcc liñ leen di toppee bis li mu doxee li Ousmane Sonko wax kenn du leen top ndax duutuñu am ay bagages yu ñu teg hmm? waaw waaw boo dee seetaan télé yi bëri li leen nit ñi toppee mooy lii nga xamante ni Ousmane Sonko tere na ko mooy booy wax na nga am preuve bu leer tey bul dugg si wii pir web jàmbur hmm? Hmm? na nga am preuve si li ngay wax te bul duggati si wii pir web jàmbur kon looy waxati ñenn ñi Mm. nu ñuy def. mais loolu journaliste la ko wax de. maanaam boo du ah, ah, journaliste yi ñiy wax na wax ñun ñëpp la wax de. mais xaar Ousmane waxul ni bu kenn wax dani yéen journaliste lu leen neex bi di leen même bu ngeen fekkoon may def ak euh, naka suñu. waaw bindal bind leen publier. waaw def ko à la lu leen neex mais. li ñuy bañ bind loo xam ni. Hmm. tegoo ko fenn. waaw ful sa bànneexu bakkan. waaw li maam boo dee wax loo xam ne amoo si preuve. ak ngay dugg si wii pire web jàmbur. Mm-hmm. loolu la dugg si wii pire jàmbur loolu boo ko defee yoon dana daal sa kaw. Ousmane tudd tudd fa vie privée foo foo nekkoon yow it man kay discours bi Ousmane mën naa ko wax ni mu ko waxee lépp laa déglu. man déglu kon waaye léegi bàyyi xel commentaire da nga gis ku ne wax na si vie privée kay tudd na fa vie privée. d'accord kon daal loolu laa wax na ci digganteem ak président Diomaye ñi ko bëggoon a yàq. non digganteem ak président Diomaye moom ñun li li ko El Hadj Sanjoog di waxee bët bu set rek noonu la loolu moom bu ko waxutoon it noonu la ndax ñu président ni leen fal. li loolu lañ leen fale ñoom loolu lañ ñu wax te buñ buñ buñ defee neneen rek war nañ ñu. Mhm. dañoo taxaw ni ba Sonko Diomaye Diomaye yooyu Sonko fal leen ñu. Mhm. ñu fal leen. moo tax kon ñoom ñaar dañuy benn koo si gis léegi gis nga ki ci des. noonu loolu la moom loolu lu lu am la. d'accord joxe wax na ci dama pare. Ah. Mhm. mu ngi noonu ñëpp waruñoo mënuñoo wax lu leen leer ndax Ousmane Sonko ci boppam xëy na li ko dal lay bañ ngeen mun li ko daloon lay bañ mu dal ñenn si ñenn parce que Ousmane Sonko nag wax li xamante ne amut yoru ci preuve moo ko yóbbee tey mu nekk premier ministre démb wax naa leen ko Ousmane Sonko son excellence la waroon dégg waaye du ko gaaw a dégg du ko dégg gum de 2029 la ñu jëm élection xam nga day samp nëndam xaw ma du samp nëndam je sais yàlla bu yàlla rek a xam parce que yaa ngi dégg nit yi naan la non deux mille vingt neuf Diomaye du def candidat nguur yee <laughs> eh, pouvoir Macky dee ci gore moom Macky moom daa démissionné moom Macky Macky daa démissionné di ba set wicc toog croiser les bras xaar leen ngeen fal seen président mu jubali Macky de c'est le premier président ici mën ici fi ci Afrique ñun xalé li ñu gisagum parce que ñun màggaguñ ay xalé lañ président bu renoncer au pouvoir ne yeen dem len élection kon gàcce ngaalaama a Macky mais ñi tok sen xel di xalaat ni Bassirou Diomaye Faye 2029 dina ne man je fais pas de de de je je je dépose pas une candidature ma ngi bàyyi Sonko dem yi koy xalaat. <laughs> yéen a ngi nelaw nag pouvoir ngeen di wax pouvoir euh, gis nga ba du mën lépp mii di victimiser wu dafa am lu muy dafa am lu muy waaj ah. dafa am lu muy wàcce yéen xamagoo leen ko ba du mën lépp dafa am lu mu nekk di togg diggante moom ak Diomaye mu ngi jël jël bu njëkk naan waaw nit yi mënuñoo jaxase yow kenn mënu kenn jéemu laa jaxase yow yaa jaxase sa bopp ndax yaay yaay wax di dindi yaay wax di weddi sa bopp kon kenn jaxasewu la benn beneen bi ci topp euh, ci ba tey ci euh, révélation yi euh, moom mën na koo tere nit yi ndax nag day bañ ci gaal bi mu duggoon nit dugg ci ndax moom diffamation wax lu dul dëgg wax li nga xamante ni maîtriser wu ko xamu ko moo ko yóbbee dégg PM moom prési la waroon dégg prési son excellence la waroon dégg mais du ko dégg ndax wax lu dul dëgg ndax diffamation kon nag bu waxee dafay jëlee ku lu waay wax naan fii laa ko jëlee ah loolu lu la daf ñuy bañal li dal yu rek parce que ci fii ak 2029 à tout moment nit mën na fi bëgg a candidat bu fekkee ne da nga wax diffamation te lay yóbbee problème mooy loolu ok ba ci seen scandale du jour de ce 1 juin ñu déglu ji toujours le plateau des trois trios ñu ñëwaat opposition si boppam la bëgg moom Ousmane Sonko dafa bëgg affaire opposition opposé wu ndax démb fi mu taxaw rek day fàtte léegi day dem ba fàtte ni du opposant ah bon waaw te dama taxaw fi ma ne la Ousmane Sonko. opposé wu moo ko neex te muy dëgg ndax nag kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko foofu ca Grand Théâtre doo fa gis ba gis ni kii président parti Pastef la mbaa pré PM la kuy defante nga fay gis kuy nettali kuy yebbeeku kuy dem ba wax li nga xamante ne moo dox sa téléphone sa téléphone li nga waxtaane sa téléphone on n'a pas besoin de de l'entendre soxlawuñu xam soxlawuñu dégg ko soxlawuñ ko sa diggante yow ak ministre ministre bi la nee nañ xa yeneen nag dina waxaat yeneen tàng mu ngi yor micro dina nettaliwaat yeneen yuy xew ñun dara duñu ëmp ci ci ci ci secret d'état yi ci ci nguuru Diomaye ndax ki mu ko la doy na waar bu dee opposition la bëgg de Diomaye am nga problème am nga ngandum maamu problème man des fois je me dis que euh, yàlla lépp lu mu def xam na ko parce que tey bu fekkoon ni euh, ñoom ñu ngi prison génnuñu yàlla dogal ñu def élection ñoom wuñu je suppose juste c'est une supposition wuñu. tey am benn Amadou Ba wala benn Anta Ngom wala benn bu benn Boubacar Camara gagné ñoom ñu génn prison après kooku du gouverner ci jàmm ndax li mag ki maintenir li makki tenir li ki muñ lu président yëpp a ko mën de stabilité bi makki maintenir 2021 ba 2023 ak li fi xaw yëpp yàq-yàq yi fi xaw yëpp toj toj yu fi yekk li fi xaw mortel combat le combat s'annonce mortellement maanaam xeex bi dee lay dee lay lay nuyoo lay lay lay lay lay lay commencé s'annonce mortellement nañuy déloger ci président président boobu dëkku loolu yëpp yombul ci homme politique yi ma gis nii ku ko mën a dékku kon nag euh, c'est mieux que mu nekk pouvoir nga xam ni du ñu dégg mortel combat du ñu dégg gasta gasta léegi nag moom day anticiper mbir yi fii kenn du fi wax mortel combat ndax loolu say mbir la yow yaa ko doon wax yaa am fit boobu gasta gasta yow yaa ko wax yaa am boobu opposition bii ci vaar bi lañ lay téye vaar boobu nag daa mel ni mu ngi def effet ndax moom nee na kenn mënu maa vaar yow bu ñu la ñuy vaar ba mën lépp waaw ba mën lépp yow bu ñu kan la ñuy ci àdduna yow yaa ñu proposé vaar di yow yaa ñu xamal vaar. ba pare tuer l'homme l'homme bi nga xamante ne lañ gën a vaar ci monde politique yow maa ngi gis benn waaye mu naan euh, nañ ma indil vaaru Macky Sall fay naa ci deux cent cinquante mille j'ai vu ça sur des commentaires après ma ma ne bu amoon sax <laughs> matul fukk matul dix vaar yoo xamante ne yow mën nga génne dix vaar yoo xamante ne mën nga ko vaar Macky mbaa kenn rek koo xamante ne nitu politique la Ablaye Wade bi mu waxee Macky Sall mënut un génie en politique ku jangal maître dafa taxawat ne sama vision du mu juum ci Macky Idrissa sek un homme d'état pareil vision du yegg jam ñaajo nekk di vision dépassé na jam ñaajo devant tout le monde ñu traité ko de tout lono alors que lool moy modeste lool moy gor gor day nangu way yow yow yow dal, yalla yàlla na moo nga dignité maanaam rusukaay yàlla bu demee ba xañ la ko rek yow nekkatu nit dooto nit rusukaay mooy tax nga naa rus naa def lii jomm naa def lii yow jommoo rusoo lu la neex wax heure bu la neex wax ñu démentir la saa yow waxee vaar taxaw bam naa nee naa leen borom bu la bii ah, baax na ba tey ci scandale du jour de ce 11 juin 2024 ba tey ci bula bi borom bula bi borom vaar bi ñu déglu ji ko. ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul son excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen ex son excellence dañu xam ni man maay seen jàmm man. bëri na loo xam ne son excellence yëkkati na ko fii ma ñëw nekkoo ko monsieur le président ñaan naa la tegal ci suuf rek. mu ji keroog daf ma xol ba si yàgg mu ne ma koromak ma ne ko mu ne ma yow dama ragal ni gaay dañ la atteindre mystiquement de dama ragal ni dañ la atteindre mystiquement son excellence le président Bassirou diomay du ñeexum ñebbe de ay suñ ko xamone dinañu tok di ñaan bés bu bu ne yàlla na fi ko yàgg comme bëriwul wax ni man nak Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom loolu nag tiital na gaaya waaye mu wax moo bëgg a seede ni Diomaye gën a nooy foofu si ñoom ndax sama reetaan ju bëri ji li mu lekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii billaahi bu ñu jëlee affaire bi jomaay dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen indi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan 4 heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetluwaat ko ma ne ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président. mukk ci àdduna bu ñu def erreur ñu def ñu. aujourd'hui aujourd'hui eh, kon loolu. muy lu ma bëgg a yokk ci seere. Sonko ba te yaa nettali de yow yaa nettali première li mu wax nee na di grand théâtre samedi dimanche bi nee na moo gën a sedd jomaay maanaam jomaay ngi yëkkati ay mbir moom moo koy ne bàyyil mu sedd maanaam maanaam moom mooy tempéré Dimas la ko wax bi ñu génnee prison jeudi vendredi seen conférence de presse bi mu ni moom ak jomaay ak Birame Souleye Diop dañoo toog këram di waxtaan mu ne ñii bis bu ñu jëlee réew mi jomaay mu ne ko tegal ci suuf du ñu defante du ñu topp kenn dañuy liggéey maanaam démb moo gënoon tàng jomaay tey jomaay moo ko gën a tàng ba pare lu mu wax c'est un peu dangereux maanaam jomaay ngi jéem a jël dara ma tempéré ko déjà mu ngi jaxase son excellence ak nit yi te yëgu ko pour bu subaa li ñu jël lekk moom tout le temps il veut être mana moom mooy héros bi je waxi démbam même pas trois mois ak waxi teyam bokkut démb moo nekkoon héros bi te jomaay moo nekk héros bi moom mooy tempeere lan moo changé ci diggante bi ana wax dëgg ana say waxu démb ak say jëfi tey ana say waxu démb ak say waxi tey maa ngi dégg benn waaye mu ne ay xar ñoo de ngeen baal ma ay xar ñoo demoon wuyu jomay je commence à croire astafurla ay xar ñoo demoon wuyu euh, ba du mën lépp mais je commence à y croire c'est grave si sa biir waxam nee na kon moom bëriwul wax ni man yow bëri wax moo la xañ li nga ñàkk yëpp loo ñàkk bëri wax moo tax xale yi tok dina da nga mëna wax luddul dëkk da nga mëna a fen bëri wax moo tax yi tok tok bi di la var midi matin soir sen xol di dag bëri wax mo la yóbbee déggo président de la république 2024 2029 na xawma dina ko féké wala mo féké je sais pas yalla rek xam ni ñi ñaan rek waslu ak ñaan yalla ñu féké ko tal ko bëri wax mo la yobbi ñi nité yépp wuñ la ba du mën lepp ba du mën lepp ba du wax lepp kenn wu la ñi nité ñi la la wax ñi nité ñi fièvre oustad Modou Fall mos na ko wax nee bu ñu indi won machine buy faj fen kat yi ci réew mi day pan machine bi day pan du fajj ñëpp manam day commencé faj rek pan machine bi ci bopam moy gis nga var bi day dem ba bañ borom li ki dina dem ba sonu dootul nangu var bi ayca rek nañ dem rek batay ci scandale du jour ñu déglu ci vidéo bi. Ousmane Sonko lay leen le siyaar bu baax di ñaan yalla gudd fan ak wér kàttanal le siyaar bu baax énergie bu bari nga dépenser nak tok pendant 2 heures de temps jàkkaarloog Sénégalais wax bay bëgg dé Ousmane Sonko da nga faté ne temps de grâce bi jeexagul 60 <laughs> jours nga def nga né suñu responsable benn bokk yaakaar yi nañ génn wax ak yow débat d'idées évaluer Sénégal émergent Ousmane Sonko yow yaa teel a daw de ah déedéet quatre-vingt-dix jours yi matagul ah déedéet ah non waa kër Mbadji Kane may dem boole ak régime bi fi nekkoon non Ousmane Sonko duñ génn wax ak yow jàppal ne grand théâtre gi nga taxawoon di def di laaj Abdoulaye Wade moo ko defar maison de civilisation noire bi nga toogoon jàkkaarloog moom Abdoulaye ah, ab Macky Sall moo ko defar mais Ousmane Sonko jàppal ne sa militant yi jóge ci banlieue ba ñëw foofu fekk si la ci terre la ñu jël. sa yeneen militants yi jógee ci banlieue bi ñëw fekk ci la BRT la ñu jël Ousmane Sonko bul fàtte loolu de da Sénégal émergent baaxul TER la ñu jël la fa jël ñoo fekk la foofu Sénégal émergent la ñeneen ñi dañoo fekk autoroute normale yi président Macky Sall defal ci Dakar 18 autopont ñeneen ñi jógee Kër Massar côté Parcelles Assainies V23 bi la jël ñoo fekk ci la Grand Théâtre sa militants yi jóge Touba cinq bu doon bu dul woon tey ci président Macky Sall duñu koy jóge dañoo xëy jóge Touba ndax autoroute Ila Touba dafa am sa militant yi jóge Thiès Thiès Dakar autoroute dafa am sa militant yi jóge Mbour autoroute dafa am Ousmane Sonko eggaguñoo ak yow ci évaluation déedéet non le temps de grâce mat ba nga dem def sa déclaration politique générale ñun waa benn bokk yaakaar déedéet ñun suñu responsable yi dañuy noppaleeku dañuy noppaleeku dañuy dem nga Mbour kat deful effet dem nga ci littoral bi deful effet yow <laughs> da ngaa yow yaa toog nga ne def séminaire gouvernemental parce que gouvernement bi xamuñu dara ma Bouba Diagne moo dem jël ay machine intermax du président Macky Sall jëloon mu ne yéen a ko yéen a ko yéen a ko indi yéen yéen a wàññe ko waat tegaat démb sa ministre de l'industrie moo jël parc industriel yi nga xam ne président Macky Sall moo ko lancé woon 45 départements yi ñu def ci parc industriel ba su ma Ousmane Sonko ñun yàkkamte wuñu déedéet ñun waa benn bokk yaakaar ah déedéet waaye waaye waaye Sonko ñun ñu ngi noos ñun ñun ñu ngi jàmm ñu ngi ci jàmm yow yaa dem lépp eurobond sept cent quatre cent cinquante milliards ci taux d'intérêt bi gën a bon sept virgule soixante quinze pour cent nga xëy tabaski gi jub si waxoon nooy def ba pombiteer wàññeeku waxoon nooy def ba soble wàññeeku waxoon nooy def ba diwlin wàññeeku waxoon nooy def ba ceeb wàññeeku waxoon nooy def ba béykat yi semence bu bon bi ñu leen nga toog ne xaaral ma dem dévertir Sénégalais yi quoi nga jël ay dof yu mel ne waa Pastef toog di la déglu quoi nga taal sa ministre yu ràgg yooyu ne ci sa nga toog rek sol sa simis encore comme waa Pastef tàmm yow loolu leen di dundal sanari nar dundal wa Pastef mu ngi noonu nee Ousmane Sonko sa militant yi joggi ci banlieue bi ñe terre bi lañ jël ñe berte bi té Macky Sall moko fi teg té leneen li ci top moy quand on parle débat d'idées Ousmane Sonko gu fi 30 trente gu fi 3 mois Ousmane Sonko yow mëno def débat d'idées actuellement. quand je vois des nafek des journalistes naan waaw man mën naa la inviter sama plateau sax mais boy wax euh, tu tu, tu, parles, tu, tu, fais des débats d'idées, tu parles, tu, tu, l'attaques pas Ousmane Sonko, si euh, tu mirum crypto personnel. Mais Ousmane Sonko, on peut parler de lui que tu, mirum personnel. Quand on parle de Mambaïnia, c'est personnel. Quand on parle de Adira Bissar et huit Beauté, c'est personnel. Quand on parle de Nimoufi attaqué Dengen Fati, Dengen Yorli c'est personnel. Ousmane Sonko, tu as une entreprise. Dit. Ousmane Sonko tegu fi entreprise tegu fi euh, kii nu mu tuddati tegu fi benn benn benn benn benn benn benn boutique bu ndeke na ndaw nit di fa jaay muy koy fay ban emploi la créé boobu ba léegi amut ñoom bi ñu toogee ak léegi lan la ñu dafa gum lan li gën a li maanaam li gën a terre à li fan yëpp pour nga sangu problème da ngay am problème sangu manam nga tok ba 14 heures bëgg sangu mën ta sangu ndax ndox buy coupé nañ ci juk nañ ci wax ndox giñ na coupé ñaata at da ngay tok ñu ne la sa facture ngi ni bondu coupure sa demon na ba pour nga dégg ko problème la légui nak day ñaari fan ngi ni ma yeewoo huit heures man man sama kër awuma ndox personnellement awuma ndox ay vingt trois heures zéro heure la robinet bi di commencé xelliwaat six heures tëjaat na je sais pas si su fekkee man kese la wala am naa ci ay morom mais ndox amut nga ne yow débat d'idée lan mooy débat de yow bu ñu ne di d'idée loo fi wax dinaa def lii dinaa def li mais ñi nga toogal dañu ne def nañ lii def nañ lii kon yow mën a koo def débat d'idée yow inauguré woo fi dara di yow wàccee goo fi dara mot moto moto li gën a ndaw li gën a ndaw vélo vélo yéen wàccee goo leen ko fii ci réew mi ñu ne lii président Diomaye fay moo ko fi indi ànd ci ak PM wàcce gu fi ci réew mi vélo vélo nga xam ne quinze mille lay jar bu ndaw bi quinze mille vingt mille yo jëm bu seeree ba seer trente cinq mille quarante mille wàccag wàccagul ci réew mi yow ban débat di de ban lan ngay waxtaani yow inauguré woo yow wàcce woo vélo bi gën a ndaw yow créé goo entreprise boo xamante ne dañu ne ah Diomaye kat moo ko fi teg mu ngi inauguré lan débat di di ci lan yow ku la ne ku ñu bu ñu waxee débat di di yéen ci lan ngeen di débat di lan ci dañoo bëgg a def lii dañoo bëgg a defar lii dañoo bëgg defar lii dama bëgg def ak def naa du du lool du combat kuy dóor moo mun kuy saaga ñii bu ñu toogee dañuy naan ñoo fi defar tali yu baax yi courant bi ñoom ñoo ko fi indi ku péetul sañ nañu wax loolu école yi yokk nañ ko ci débat di de ñoom mën am nañ mën nañ ko wax BRT bii daw ñun ñoo ko defar teer bi ñun ñoo ko defar oto oto oto gaz yi nga xamante ne annoncé ngeen ko te yéen indi woo leen ko te makkee ko lijjanti ba mu sotti mu des lu dul mu ne cëpp Sénégal ñoom mën nañ cee débat estade di mën nañ ci débat kérok biñuy football euh ci suñu mbokk yi Mauritanie les gens comparer les stades ñan xol stade Abdoulaye Wade ak stade du Mauritanie lolu sak la yeen débat di ci lan ngeen di wax suñu ñooñu dañ doon Ousmane Sonko tok di xass jigen nan ko dangin ci lan ngeen di débat di ci lan dinañ ñi dund ci 2 mois 3 mois ngi dugg ci lan ngeen di débat di ci lan appel à la candidature defoo leen ko rupture gisuñu ko peese bi moo nekk di dox projet bi parewul dans deux ans la lan ci lan ngeen di débat di ci lan au fait dañu jàppi nit ay tof ay ah, mu naan ma de ki genn ndaw ci ñi nekk fii munoo def ak ñoom débat di ba du mën lépp ba du mën lépp pingat sa cër yi te nga noppi dem liggéey loolu lañ la sant def fi dara ñu ne ah bisu nangam ka dañuy inauguré temps lii yéen vélo sa wàccee goo leen ko fii ci réew mi kon débat d'idées dama xamul ci lan ngeen di débat d'idées ci lan ba tey ci seen scandale du jour rapport Cour des comptes euh, Djiby Guèye Ndiaye Euh, le chef de cabinet de Ousmane Sonko c'est qui. il était salarié à faut le retraiter. c'est moi qui l'ai fait passer euh, chef de bureau à chef de division a-t-il le BFM ah kon ko defar nga ko kay ba mu ba mu jekk ba nekk euh, ci côté Sonko amu problème jamonoy Wade ñëpp ñu bëri liggéey nañ am nañ BFM ñi amuñu woon BFM te du ñu ngi doon liggéey jamonoy Wade waaw Macky ñëw jëlee fi BFM ñu lay laaj bac waa ñii ne bu ñu ñëwee moom licence lañuy laaj ak doctorat d'accord c'est une parenthèse Jibi Gueye Ndiaye ci Sonko la nekk. d'accord euh, nit ki mën na bañ a mais am benn intelligence boo xamante dina ko permettre mu liggéey fenn loolu euh, am na maire yoo xamante amuñu amuñu fenn maire yuy diriger ay département ay commune mais amuñu fenn donc euh, gëm naa ni Jibi Gueye Ndiaye il est intelligent <laughs> liggéeyam moo ko yóbbu fi mu nekk yow jàpp nga ci combat bi donc où est mal amul problème mu ngi noonu ba tey ci seen scandale du jour kii di Ousmane Sonko encore var ñoom nag dafa taxaw barki dem mu njaay foofu ca Grand Théâtre ni amul kenn ku bokk ci ñoom ku doon saaga man nag bi mu ko déggee dama tiit ñu déglu ju vidéo bi jóg ngeen xaar datu Macky ngeen attaqué ko Macky fu mu génn da ko war a attaqué attaqué leen ko attaqué leen député yooyu attaqué leen intérêt français yi ci dëkk bi voilà loolu man maa ko wax bu ma ci demee kaso je m'en fous ku ko saagawul ma tegal la ci sa bos. est-ce que mu sañ jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga Ousmane Sonko dem fa wala mu wax ci mësula am. muy sax Ousmane Tounkara parce que maa ngi gis fii 1 million marche nga xam ne xeex bi moo ko andi lii ko dal. te ñu defoon ko assan Diouf ba tey fee ci États-Unis teg nañ ko loxo ñu koy massaw di massawu ay jegeñaaleem di massawu ay mbokkam te di leen wax nag ni ni ñu amee solidarité ci xeex bi ci lépp lu ñu doon dee noonu la ñu amee solidarité ci li leen dal nii dafa fekk suñu pexe eggul états waaye noonu lañ ko amee ci ak ñoom. yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax. seen loxo nday laa wax. ah non lool bul wax lool. man li ñu bul waxaat lool. Ah, yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax. monsieur le suba may procès euh, Bah Diakhaté ak imam bi bon dinaa la xamal leneen dam la koy teel prévenir barke borom Touba ma yaakaar billaay wallaay watalaay boo bàyyee jax Bah Diakhaté ak imam bi nii bi damay saaga sa ndey billaay wallaay watalaay Bah jabate boo ko bàyyee mu ñibbi ak imam bi billaay dinaa taxaw si kanam Sénégal nag ma saaga sa ndey voilà loolu man maa ko wax ay j'assume toutes mes responsabilités yaa procureur bi boo leen bàyyee Bah Diakhaté bi xam nga yéen Macky Sall ngeen doon liggéey fi ngeen doon def ay conférence de presse di saaga le président Ousmane Sonko. waa gis nga mu ngi ci siège bi quoi Sonko rek lañuy top boy ki ak Bassirou kii la wax ni ku fi wër di saga bokko ci passif lu leer la musa wax. moy ni ñi gaawee xam ngeen canard canard foie gras de canard canard dañuy ubbi sen put yi xol leen lek la lañ tuddee gavage cerise c'est des mar à bout rek nga ñu di jox ngay lekk noonu la leen Macky téye ñoom ñëpp xaalis la ñoom du baatin du dara alalu àdduna am poñet képp la ñii leen jar yi xam ngeen leen borom lan ñu rëy feral tey mbépp mbépp yi nekk télé rajo yi di wax xam ngeen leen trin si da ngay saf saw ndax lan xaalis bi ñëwatul malet ganaar yu tàng yeeg jéegi foofu la leen Macky téye moo tax ñu bari duñu wax il faut ngeen xam li xew ci réew mi lu tax ñuy log log yi parce dafa am lu ñu log moo tax duñu wax log ñu log moo tax duñu wax. yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax. ay caga ngeen fal ay arriviste ay doome xaram Bassirou Gueye maa ngi ñëw fi yow toj sa cot di ñëw ci doyen de juges maa xam Dakar mag doomu mandikat bu ñàpp di di di juuf Diouf dëj dëjjaayo lan yeewoo seen cot ñu ngi ñëw nag. man nee leen mënu leen ma mënuñu maa vaar parce que sama waxu démb mooy sama waxu tey. vous savez am na benn feebar boo xamante ni am na nu mu tudd feebar bi dimbali leen ma mooy feebar boobu nga xamante ne dangay ngay fàtte euh, ay euh, nu mu tuddati am na nu mu tuddati ndeysaan am na benn feuilleton bu ma seetaanoo novelas euh, Rubi yéen a ngi fàttaliku Rubi waaw boo tuddoon Rubi. Euh, yayu yayu yaayu acteur principal bi Alexandre je pense sa maman avait cette maladie day fàtte rek am na nu mu tudd de am am tur bi daal ah daal la commencé mais xamul man man tur tur tubaab yooyu tur tur bi en day fàtte rek mythomane mooy kuy kuy fen non non mais kuy fàtte feebar koo xamante ne day fàtte am na nu mu tudd waaye dama dama fàtte am na nu mu tudd. Euh, moom est-ce que est-ce que maladie boobu dalu ko moom moom moom ba du mën lépp waaye ba du mën lépp est-ce que est-ce que loolu dalu ko koo xamante ne day wax lii ko maanaam maladie boobu bu la jàppee dëgg-dëgg yow da ngay fàtte maanaam man Zeyna laa tudd de damay dem ba fàtte man Zeyna laa tudd damay dem ba du xam xàmmee sama doom du ma xàmmee sama sama sama sama sama ñi may ñi may liggéeyal du ma xàmmee kenn bu la yàppee maanaam wax léegi lii ne genn ci ba mu set ne waxoo lii léegi nga wax est-ce que moom amul feebar boobu te ñun yëgguñu ko ba du mën lépp mbaa feebarul. xaa lii lii lii ah yàlla baax na kenn mënul wax lépp nekku lii lii ah baax na ay ca rek <laughs> yàlla baax na vaar vaar vaar midi matin soir vaar vaar midi matin soir ah, man di xam naa damay toog gàcce day bàyyi borom jàpp am na ñoo xam te dañuy rus ci palaasu ba du mën lépp manam ba du mën lepp lu mu waru du sepp ñi koy setan te sopp ko ñom ñoko ñoy ñooy ñi ragle ñi de ñi ragle ñi ñi am xel ba tey ci sen scandale du jour ñu déglu ji vidéo bi ñëwaat say man duma may kenn turbine pour muy exister wala muy talal loxo ñom Sonko pour ñu fal ko dara man duma ko may nit voilà en tout cas li ñuy wax yépp ci dans cette histoire là ñi koy wax ñëpp dañuy fen doorante amu fa échange de parole am na fa yu violent am na fa saaga am na ca mais leneen luñ la ci wax amul maintenant du mu may kenn turbine pour ngay soo koo xamante ne nii saa yow kañ nga gën a dégg son saa yoo déggee son mitigu Sonko moo am parce que si Sonko lay la nga am pour xewaat man ma ngay may occasion parce que waay ma ko def. coowal amendo yi nit dof nee na xeex amu ci waxtaan nañ euh, wax nañ euh, am kii ñëw nit dof ñëw ne ko kan ngay wax tappet nga mu ne ko yow lay wax tappet nga daal di teg tabletam daal di xëccoo ak moom mais xeexul xuloowuñu xeexuñu maanaam dóorante amu ci waaye yéen Sénégal lu tax leen leen pourquoi nit bu géntee géntam tout le temps ngeen ngeen a yéen a ko gën a xam géntam borom day mbill gi nee na te nee moom nee na Sénégal set dafa mel ni fa la amee nee na xeexuñu xuloowuñu diggante Sénégal set ak Seneweb la parce que démb déglu naa ko mais dégluwuma ko ba mu jeexal amendoy ci boppam mu ngi expliquer scénario bi mais pour pourquoi mënuñoo dégg ne xuloowuñu xeexuñu maanaam xuloowuñu xeexuñu maanaam jàppantewuñu ñee naan dóor nañu amendooy ah, gis naa journaliste yi fen toog ci télé yi plateau yu plateau suba si di fen naan da koo dóor ba ñu yóbboo ko hôpital waaye lu tax ngeen ñeme yàlla ku ñu dóor kay neex naa xàmmee ku ñu dóor nit dof are rek are areem dugg ci nit koo kay neex naa xàmmee léegi borom nee na ñoom dóoruñu ko xeexuñu yéen nga ne force dañuy xeex moo tax nee na képp ku wax ni dañ koo dóor day fan am ñoo xamante ne na nak amuñu jom du ñu rus parce que am nañ micro am nañ fu ñu waxee rek fu ñu toog ba keroog ñuy jóge ci plateau yi dañuy dul dañuy fan dañuy wax lu dul dëgg lu dul dëgg la ñuy wax ci plateau te du ñu rus sax ñu ñu ñu tooyee du ñu si am kersa sax ñu ñu toogal. yàlla baax na ba tey ci scandale du jour ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. Macky Sall dafa mbapat Macky Sall Abdoulaye Wade da ko defar defal ko échelon yépp Macky Sall moom puus mu dem puusul mu dem la dafa pare entraîné ba ba ba ba pare nekk président Sénégal.

neena len gis nga ku yaayam ligi ak ku liggéeyal yaayam munoo len bok ku liggéeyal yaayam ak ku yaayam liggéeyal munul bok ak ko xamantene ne jéemut xamut Macky Sall ñu japp ko ñu bañ ko jappalé day dem parce que dafa mbapat dafa am fu mu jaar ba yeksi tay fi mu yegsi Macky Sall nga jappalé ko nga ñàkk ko day dem il est indépendant mentalement lu mu yor dafa bëri te nee naa leen nit a ngi nit a ngi jàngal nit ngeen dem xuloo xeex daa war a tax mu mën a nanguwaat sa xam-xam donte Macky moon jël pouvoir bi ci loxo Abdoulaye war mais li ko wadd jàngal yi day des ci bopp bi parce que xam-xam loolu moo tax ñuy naan mënuñoo fay kiy joxe xam-xam parce que da lay jox loo xamante ne c'est pour toute une vie Macky Sall expérience bu mu am ci Wade Macky Sall mbappat bu mu mbappat Macky Sall fépp fu mu mënte dem day diriger day mën a diriger parce que déjà am na yaatuwaay bi. il est organisé am na caractère bi Macky Sall am na fulla ak fayda Macky la nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom li war da koy def c'est un homme intègre responsable et digne de confiance boo ko waxee ñu ne la da laa jënd da nga topp xanaa booy topp dangay topp ki fi nekk Macky yëgul tinul mais nit ki da nga koy waxal sa diggante ak yàlla ki fu mu munti dem day diriger dafa mabat il a galéré il a souffert Judo Sénégal fi màggee fi jangé fi tekkee fi fi ministre nekkee fi lépp lépp lépp lépp ba dégg te te ngeen kit li nga xamante doomu adama bu nekk mom ngay ñaan Yalla dégg moy son excellence ba tax na moo tere ñelaw ñenn ñi ñuy bakko tapis rouge ba du mën lépp son excellence nga dégg yow déggo son excellence dégg yow ngay tiitaroo dox ci tapis rouge Macky dafa dégg son excellence parce que dafa mbapat ba tey ci seen scandale du jour de ce de ce 12 euh, juin 2024 ñu déglu ci vidéo Abdou Nguer bi ñëwaat. fii laa toogoon ma ne Ousmane Diagne loxoom ma ko ci justice bi mais nag Sonko dëggalal na ma ko de dëggalal na samay wax comme Ousmane Diagne mooy nekk ci Sénap bi TikTok bi YouTube bi vidéo bu mu gis amaana sax xay na mu ngi seetaan suñu émission bi pour luñ fi wax rek mu jël ko yónnee Sonko ne ko loo ci xam en tant que ministre de la justice. d'après bu ñu déggee li Sonko wax muy lu dangereux nag lu doy waar jëlub vidéo yónnee ko ministre bi ne ko kii lan ngeen ci wax seen parti la bokk ñu jàpp wala duñ bàyyi jël vidéo ba jaxate yónnee ko mu ne la jàppal imaam ndaw jàppal ñaari booy yi dañoo dof bàyyi loolu laa jàngate ci wax ji lu dangereux nag sénégalais yi nag tiit jot na ci ñoom ñu ngi doog am nag ndekete nag justice mu ngi doog am nag ku koy manipuler ndekete moo nu mu nawee noonu la amee fit <laughs> Abdou Nguer nu mu nawee noonu la amee fit wur na yàlla yàgg na wax ci mbirum Ousmane Diagne sénégalais yi bàyyi ñu ko xel nee na tey déggal na ko te ñenn si sénégalais yi nee na ñi moom ci boppam dafa war a mën a démissionner ndax li mu def du yoon te Ousmane Sonko aussi li mu def du yoon ndax secret d'état kenn du ko nettali kenn du ko nettali kenn du ko nettali donc leneen bu amaatee xel du dal. kon moom dafa war a mën a démissionner du samay kàddu kàddu ñenn ci sénégalais yi la Abdou Nguer nag ay waxam mu wax dëgg fa yàlla xam ngeen ko moom du tourner autour du pot wax lu mu lay wax dem yoonam man daal xaw fitam fu mu ko jëlee waaye daal am na fit am na fit ta Abdou Nguer yàlla may na ko am fit kàddu yi la ko wax ci Ousmane Diagne yàgg na ko wax ci Ousmane Diagne tey Ousmane Sonko li mu wax méngoo na ak li nga xamante ne Abdou Nguer mu ngi ko doon wax donc Sonko déggal na ko. fi ñuy dóoree rek kax moom mooy li nga xamante ne feeñ na ci réew mi mooy mbirum pétrole bi ba mu jur am polémique tulleeg ngale ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. premier baril de pétrole sur le champ de Saint-Gomar à cet effet je vais vous lire ce communiqué conjoint de Woodside du ministère du pétrole et des énergies et de Petrosen. Euh, première production du champ Saint-Gomard, Woodside, opérateur de la contreprise Refisque, co-entreprise Refisque Offshore Saint-Gomard Offshore et Saint-Gomard Offshore Profond, annonce l'accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Saint-Gomard situé au large du Sénégal et constituant le premier projet pétrolier offshore du pays. tey jii tembe ñu toog tabax nañu seeni pipeline fële ci géej ga ci ci ci ci ci ci océan ba ba def pipeline buy duyal bateau yi wara yóbbu ñoom bitim réew. ah commencé ah, nañoo yokk. ah defar nañu pipeline. ba pare ma tabax nañu pipeline yi ba pare ba li war a yebal bateau duyal bateau yi yóbbu ñoom nga xam ne ñun Sénégal maa ngi yow fi ñu toog du ñu xam ci géej gi la ñuy taxaw ñu duyal leen ñu dem. ak pipeline bi war a andi biir réew mi lépp defar nañ ko ba pare te amul sénégalais bu la mën a wax tey suñu pétrole nu mu demee mhm. luñ ciy am luñ ciy gañe ak yu demee mu ngi noonu premier baril ah, pétrole moo daal di feeñ exploité nañ ko barki démb ah, ba ba léegi dafa jur polémique li tax mu jur polémique kii di ba du mën lépp nee naa leen ñëpp la waxal bàyyiwul kenn waxal na malayka yi waxal na jinne yi waxal na nit yi waxal na xubub zamaat yi waxal na sëriñ si waxal na ñëpp parce que moom mooy xam lépp mën lépp mooy ba du mën lépp ci mbirum pétrole bi ana luñ fi déggul ana luñ fi waxut euh, te ñoom duñu mës a daanu ah. je vois ñuy commencé di joxe ay explication non dañuy régo euh, euh, négocier waat contrat yeeg xamoo leen yan Macky Macky Sall yan négociation ñoom du ñu mës a daal maanaam ñoom du ñoom ñoom ay waliw lañu ñoom ñoom ñoo raw waliw maanaam ñoom ay malayka lañu ñoom ñoom du ñu juum ñoom du ñu wax lu dul dëgg ñoom du ñu mës a daanu ñoom defet daal bokkul si seen seen carrière ñoom ñoom seen defe xanaa ni mi fi nekkoon sax di daan duma ku ne waaye Balla Gaye bu mu jógee da koo daan mu nangu defet bi nag toogaale ak moom boobu ba léegi kenn dégg ko am ful la bay bëgg di firi aaw na moo leen ëpp doole fuuf gënoo leen ëpp sañ-sañ waaye fan lañ ko jaar mu ne muut kon yéen yéen doo maanam yéen defet yéen dooleen leen mës a am defet ci seen àdduna lépp loo teg waa kër ba du mën lépp am nañ ci explication lépp loo teg sa àdduna waa kër ba du ma lépp am nañ ci explication ñoom du ñu mës daanu ñoom seen rusukaay maanaam dafa jeex ba pax na dañuy wax loo xam ne ñoom xam nañ ni ñoom si bopp dañ xam nañ ne ci ñoom ñu ngi ci fen mais dañuy wut justification des dafay baax nit ki ne dama juum nitay juum yàlla rek a dul juum ci kaw suuf sii sëy seek waliw yeeg ñëppay juum ndax nit lañ matuñu nit yàlla rek a dul juum yow nga ne yow yàlla nga doo juum yow doo doo juum mukk yow lépp lu ñu wax rek am nga ci explication man loolu moom a jaaxal si ñoom munoo débat ak ñoom ba ñu nangu munoo indi preuve ba ñu nangu waa genre ñooñu bu ñu yàlla naxtoo ñun lan la ñu war a mën a def am xolu muñ moo fi sës boo waxee ñu naan la seen xol day dagg dafay gaz gàcce du leen raj gàcce du leen rey ndax yàq ngeen góor yëpp tiim tuumaal ngeen góor yëpp Alioune Sall de ca kaamil bala waatoon moom ko tag ba du mën lépp ndax ba du mën lépp la sur le cœur mais te tubaab tubaab sax je jure au nom du Bible danañ ko wax wala je jure au nom de Jésus-Christ waaye là mais sur mon cœur ou dans mon cœur ba du mën lépp respecté nawloowuñu waaye moom dafa xamul ñun ñoo ko nawloo wut ñi àndut ak moom yëpp kenn nawloowu ko ñi ànd ak moom nag ay ay nag lañ ay kubéeru cin ay xar lañ la plupart d'entre ñoom ngeen baal ma mais duñu xalaat ñiy xalaat si ñoom ñu ngi ne tekk kenn du leen dégg ñooñu ñooy xalaat si ñoom mais am na li gën a li gën a bëri si ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ba du mun lépp amuñu xalaatukaay amuñu servel yow ñu ne la waatal nga ne lan mooy kër lan lañ wax ñu ne xol mooy noonu boroom yow nga ne soo xol ngay waate ma main sur le cœur <laughs> mbéta koy théâtre barki rasulillahi ah c'est que man man man man ah man des fois bu leen ma ko jàppee nag garaawul man dee leen ma seetaan nii rek di ma bàyyi c'est que man man man kër badu man waa kër badu man lépp du tax ñoom du ñu nangu ñoom du ñu mës a juum pour lan yow man damay dem douche da ngay dem douche damay lekk da lekk damay feebar da feebar damay am problème da am problème maanaam nit nga may nit toutes mes besoins ñoo nekk say besoins yow nga ne man damay jum waaye yow doo jum ko ci àdduna pour lan yow yaay kan kañ nga fi yow lan yow yaay kan sagam ñi fekkee woon jamono yi sëñ Tuubaa jamono yi Maolana Cheikh ñoo doon juum waxantuma laa ñun ñi nga xamante ne léegi ñu ngi akiru zaman doom a ngi saaga yaay yaaya ngi yaaya ngi yaaya ngi yaaya wili panda doom xarit yaa ngi yàq xarit Ah, jigéen yaa ngi dox taatu nen góor yaa ngi jigéen jigéen lu aaxiru zaman yow nga ne yow ci nga nekk yow nga ne yow waliw nga nga ne yow doo juum daal ci jamono jii nga xam ne lépp a yàqu suñu sëriñ si yàlla nañ fi yàgg wér ndax lu ndaw lu ndaw lu tuuti xaw war ma bu tuuti buñ fi dese rek ci ñoom seen loxo la ko yàlla jaarale ñoom ñoo ko téye yal na yéex waaye bis bu ñu fi jugee la loxo dem gémmiñ ndax rusukaay amatul kilifa buy taxaw ci penc di fen lek di fen midi matin soir di wax lu deug dëgg ni ya ca nek yow heure bu la neex nga yengal sezu yalla nga koy namo di ko ba pare man lima metti man duñu ñu nangu juum boo waxee ñu naan la seen xol dina tang fi ak 50 ans pour yeen yalla day juum yalla du jël yefu dem ba jox ko paté yalla dafa bëgg xamal sénégalais yeneen ñen motax mu tek leen fu mu leen tek gis nga yalla ay mbiram du ci tàggu mbindéef day def sagam doom ak yaay lay tàqale doom ju dund yaay jadi waxantuma laa nag ay wuyu ak ay bandi nee naa leen boo demoon ci sëriñ ji liggéey lu baax doo ko gaaw a gis waaye boo demoon ne ma damaa bëgg nga liggéeyal ma Zeyna mi mu futteeku ba set daw dof ak ay gaaw mën nga jóg ci sëriñ ba sax daje ak Zeyna muy futteeku de daw nga xam ne sa liggéey nangu na yow pour yàlla gisu la yàlla la ko yombalal di ndax fa mu lay xaar da lay alak le réveil sera brutal yéen seen réveil ça sera brutal vous allez quitter pour tomber en bas da ngeen jóge fu kaw a kaw ne cëpp ci suuf yéen waxuma la ay morceau sax waaye na ngeen nar a tasaaro ba mel ni ay ay melentaan tellement vous serez déçu, tellement vous allez vous réveiller très tard, mais brutalement. Aïe, rek Aliou ça de moom jure téere yalla, bala, la Waye, je jure sur mon cœur mon badu badu badu mon lépp ko defoon badu mën lépp nga xamante ne ñu bëri nawlawuñu ko ndax badu mën lépp lu mu wax genn ci badu mën lépp tilimal na gor yep badu mën lépp yak na gor yep bayiwul ñep bayiwul kenn waye nak yalla mi atté yàllaa ngi toog di seetaan yàlla ak a mën a seetaan jaamam des fois yàlla seetaan la ba nga ne man yàlla lu ma ko def fekk xamoo billaay xamoo ay ca rek ay ca rek lépp dina leer le temps est le meilleur juge dinaa leen ko wax fii le réveil sera brutal le réveil sera brutal sagam yàlla nee na loolu lépp lañ lay fay sagam ñu ne loola la lañ lay fay sagam nee nañu yéene neeg la borom ma ciy fanaan ay ci rek ay ci rek xam nga Macky da jaar porte bi di bay bay nit yi ba dem yek ca vol ba dem sollu balam wote la pe yeen nak genn bu mel nonu genn war wut ay ci rek yeen comparer len ak Macky sa yap la parce que gouvernement boo xamante ne suñu suñu suñu suñu xëyee ay man ba du mën lépp ah baax na yàlla baax na ginnaaw lii ne Alioune Sall ci li ma waxoon moom dégg na fi lu ne ba tey ci scandale du jour Alioune Sall maire Guédiawaye bi nga xamante ne borom premier benn mandat bi taskatu xibaar yi borom revue de presse yi. gaz du ko taree neex suñu quatre cent mille amuñu sa jom ngeen baal ma mais ñun amuñu ay kilifa au niveau des administrations amuñu ko ndax matuñu ko Alioune sàll ñu déglu ji ko ñëwaat. di wax ne maa ngi téye téere alxuraan bi di waat ci sunu borom di waat ci alxuraan. ne lii ñu may tuumaal ne dama jot xaalis bu jógee ci Timis Corporation dugg ci société bu ñuy wax Agritrans ne mosul am bu dollar bu gën a ndaw waxuma la nag deux cent cinquante mille dollars bu mos a jógee ci Timis Corporation dugg ci compte Agritrans ñu ngi may tuumaal tamit ne xëy na dama am wàll maanaam li ñuy wooyee action ci société yi nga xam ne ñu ngi liggéey pétrole ci Sénégal ma leen di waatal ci alxuraan ne amuma benn wàll awuma benn pourcentage maanaam ay action yoo xam ne ci société yiy liggéey pétrole ci Sénégal la wala sax ci yeneen société yi ci àdduna bi yoo xam dañu am relation ak pétrole wala gaz ci Sénégal loolu maa ngi koy waat ci alxuraanu yàlla bi dafa moom la teg suma loxo day jox di leen wax ne tuuma yooyu yëpp am ma ciy profité tamit ndax xëy na bu actualité waaye souvent am na ñuy waxtaane naan banque boobu ñuy wooyee BDK dama ci am action wala dama ci teewal Macky Sall yore intérêt may waat tamit ne banque boobu yi tamit ñu may tuumaal ne maa moom wala dama ci am wàll wala dama ci représenté Macky Sall amuma ci benn action même bu tolloog zéro virgule zéro zéro zéro un pour cent naka noonu société pétrole yi tamit te demoon nga fee bërëb bële kër gële fële fa ñuy dàmpee ak maas ba tey waatul kaamil jege nga ndaw si walla jege woo ndaw si ba du mën lépp ba tey waatul kaamil sur le cœur la waat sur le cœur ba pare nag ñàkk nawloo nit yi naan ma deew ma fu xaw ma xale bi jékki-jékki naan dem naa fa ci laa génn ci ba du mën lépp ba mu set wicc wicc wicc wicc wicc wicc man Zeyna man dew ma fa xaw ma ko toog ba heure bu la nii xam ne mbir yi tembara na nga ne ko <laughs> naam dem naa fa ma ne leen maa ngi nii dix minutes laa am fay leen cinquante mille yow dix minutes cinquante mille nga ne yoroo yow nga ne yow yow yow nga ne cas social nga yoroo dèjà moom naw la ñu respecté parce que daf ñu jàppee ay nag xam nga nag du xalaat moom jàppewuñu sax ngeen baar ma ci kàddu gi l'ami le plus fidèle lan la ñuy wax xaj des fois sa xaj nga yónni ko mu nduggal la des fois sa xaj da lay yërëm day day nekk l'ami le plus fidèle sa xaj day dem ba day ràññee sa parfum foo nekk da la fay wër tubaab yi seen policiers yi dañuy yor xaj xaj bee leen di gide di xañcu ne leen waa fii la nekk waaye moom loolu sax defuñu ko nawloowuñu ba du mën lépp waxal na ñépp waaye nag Aliou Sall li mu def moom du ko def de kaamil ba nii waat naa ci yàlla jiñal naa leen ci kaamilu yàlla bii ci teere yàlla bii teguma fa sama tànk mbaa xaw ma xale bi mbaa jegewu ma xale bi ma ey boobaa sutura xaweeku ndax yàlla alquraanam kii fawewu ko de ba du mu lépp du ko mës a def Aliou Sall nag ba ñu ko jiiñee loxom ca kamil ba deug lag du deug wat na ca kamil ba lolou lañu mëna wax lañu gis lañuy atté waye ki nga xamné mom ma mu sur le cœur <laughs> mère sur le mère kay maamee mom bra sur le <laughs> barki rasulillah ya ah. sa ko dama ñëw ni def dama ba wour na yalla tax ba du mën lépp mon cœur je jure sur mon cœur muy sama ay man alim sal alim sal gatcha ngalama ay way alim san man nag bizarrement man musuma lacc ay 400000 musuma bizarrement barki rasulillah parce que xam nga man tout lepp lu nekkone politique man c'était ça m'intéressait pas au fait man je suivais RTS pour xool journal ñuy présenter journal ni ñuy defee journal man loolu moo ma doon neex en fait tey bu bu bu affaire bi commencé les titres xale jigéen ñi nu ñuy toogee sage xam nga tu sais ça m'a fait aimer euh, métier bi loolu ma bëgg loo métier bi micro ak yooyu dama ko doon suivre mais maanaam mooy woyaa woyaa yi ay diw def na yooyu jaañu ma leen seetaan mais bizarrement dimb je vois des gens ay Alioune Sall baal ñu ak ay Alioune Sall baal ñu ak. Ane Sall du bal kenn ak lu way waxon na ca wat gis nga yalla ay te gis nga mbugal bi yalla bi gis nga mbugal bu ñuy xaar feulé yow sagam yow sagam almet ngay def ni rek wala birket bi mu laal nga def uy lakk nga tit waxantuma la xal bo xamantene ne ñu ne dañ ko sang sangat ko sang sangat ko ba ñu na la ne xal génnee cabaxal génne ca yow tiitoo loolu alalu àdduna bëgg sos ñeme yàlla yab yàlla weesuwut ngay waxal nit loo tegul sa bët dem nañ ba ñu ne leen ñaaloo sax pour nga seede ko day fekk plus de trois ba quatre personne fekk leen te ku nekk ak bërëb bi nga jóge ngeen mën a seede diwa ngi ñaaloo ñun Sénégal ne nit ki càggalal ki yomb na si ñun di góor jigéen na yomb na si ñun ñun tuumalaate bi ñu nekkee ak ñeme yàlla yab yàlla weesuwut di wax loo xamante ne yàlla mi xam lépp ne patt yow nga ne doone patt sutura zéro mbambe lu biir zéro yow fu ñu la fekk da ngay yebbeeku ba pare yow ñëpp ngay yebbeekul des fois sax nga bañ a dem xew waaye xew boo dem yebbee ko fa xew boo dem yebbee fa nit boo gis yebbi ko yebbil ko xam naa ni moom moom ñi nga yebbi li nga ndawtal yi bis biñ la fayee say ndawtal na nga am xolu muñ ak gore dëkku ko lii laa wax lii lii ay magum jëm ah baax na <laughs> ba tey ci loolu le ba tey ci mbirum pétrole bi toujours dans scandale du jour ñu déglu ci vidéo bi pétrole bi ini, samai samay 400 000 samay nangam nangam na ma jox sama wàll kii lekk na pétrole ba naan na ba kon yow loolu xamul kon yow loolu xamul nu mu demee déggoo li ma jeexalee xanaa Assane yow lan moo tax des fois ma la joxee bee su ma la sàppateel sa sa naan naa la bàyyi nga dem lu ma la sàppateel nga ni fi ñukk li ma la wax déedéet nga joxe mën na ci am solo ëpp loolu ndax contrat yi mën na am nañ ko signé woon baaxul waaw la onze ci la yëf yi feeñ walla hmm. ci lañ njëkk jukki daal hmm. waaw man de bu ma déggee ñu ni feeñ na ëpp na loolu. Hmm? ma déggee ñu ni feeñ na bu ko président Macky Sall feeñalee yàgg na de. waxuma feeñ de asan hmm? li ñu njëkk a jukki laa wax. waaw bañ si jukkee yàgg na de. acca bismillah kon. waaw ndax man yàgg naa dégg ñu pétrole bi feeñ na fii gaz ba ña ngi ko teg fee ña ngi koy ña ngi koy rongat ñu ngi koy yóbbu circon bi ñu ngi koy yóbbu ah sun pétrole bi. ñu ñan ñoo ko doon wax. <laughs> Hmm? ñan ñoo ko doon wax. ñëpp Sénégalais yi. ñan ñan comme exemple. monsieur parti bi Sénégal koo ci mën a jël kenn. ñëpp rek. waa kenn. waaw bu ma nee ñëpp kay xanaa bàyyi ma kenn. ku si bokkut na taxaw ni man mas naa ko wax. ma ne ku si bokkut na taxaw ni bokk boo si laaj bi mas na ko wax. bu si bokkut na wax ni bokk ñoo fi wax naan pétrole bi ngi nii samay 400000 samay nangam na ma jox sama wàll kii lekk na pétrole ba naan na pétrole ba. kon yow loolu xamoo du ko teree xeeñ kon yow loolu xamoo nu demee. nga ni li ma jeexalee xanaa. ma ne Assane lan moo tax des su ma la joxee bee su ma la sàppateel sa sa soppe yi naan sila nek nekk de génn ma pétrole bi de. déedéet wóor na maa ngi xëy xam na. léegi léegi su renégocier <laughs> contrat yi. moy hmm. koy moy ka fi nekkoon wala ña fi nekkoon ñu jox len ko. Hmm. lan lañu négocier ak tubaab bi hmm. mo waral kay diw samay 400000 buñ ko waxee mais du pétrole buñ dem di tank mais biñu négocier affaire yi nan lañ ko négocier khatimi lan la. bu dee problème mu négocier mais man liñu ñu jukki la na fekk mom bu diriger plateau. ñi nga bokkal dinañ bëgg wax dëgg duñu wax dëgg bu ñu fayda waya dina top la ci li nga nek ci nafek bi nga pa waaye gatcha ngala pa paasan nak ma ngi lire commentaire yi gaay nenañ à tout moment mën nañ la dakk ndax la ngay wax arranger wul ñi ngay wax arranger wul ñi nga bokal arranger wul ni fa fa nga toog dëgg ñoru len ay nafek lañ mako wax bo toge ak nafek fekk nag da bëgg diri way yalla bu la bëggé da lay pa asan gàcce ngaalaama ñi la doon tag démb nak gis naa ñu lay saga loloy seen jiko loloy seen jiko tay ñu tagal suba ñu xawé su sutura waaye la ngaalaama pa asan senegal dañu soxla dëgg senegal dañu soxla ku ñuy wax lu ñu nyu a dégg ku ñu fi ba ku bañ ñu fatali la na nga fexé ba ba wax fi lu lu rafet fàttali ak am métti ci Pa Assane gàcce gaalaama ba tey ci scandale du jour toujours ci Pa Assane ñu déglu ci ko ñëwaat. président Macky Sall dem na France te président Diomaye demagut France. ok. yaa ko yaa ko. ci réew mi ñu ne daal loolu erreur la boo xam ne France def na ko. waaw am na solo son yi bu moom lu mu wax ci programme bi amoon démb. moom. Mm, Walf. ah lii de la ñuy jox tey à la bi di laa fi. à une bi ma yaakaaroon ci démb léegi yooyu ah xëy na wax na ca xëy na wax na ca mu dem France man mi damaa mënut dem France. yow. waaw mais ñu lay dalal kay mooy problème bi. déet Macky Sall président Macky Sall moom laataa lii déggoo ñu ni waxtaan naag président bu France bi ba mu ni ko dañu lay jël pour mu liggéey foofa ak yooyu yëpp. Mhm. président Macky Sall tout moment mën nay baagante di dem réew bu ko neex. Ah. lan moo ko tënk. dara kon loolu léegi lan moo si effectivement bañ ni dafa juum waruñu woon a dalal ko bàyyi kii ak yooyu. erreur la waaw kii dafa am date bu mu fa war a dem ñun ñëpp xam nañ ko annoncé nañ ko am da koo déggut moom. Hmm. date bi fi président Diomaye di dem xamu ko. ah asal loolu yaay jàngat xam nga yow yaay yow yow yaay xaritu gaay yow lañu war a laaj ñu waaw président Diomaye am na date bu mu kale après boobu pare am na date bu mu kale bu mu war a dem France mhm. seeti ko mhm. président Macky Sall nag mën na faa dem tey bu ginnaaw suba mu dem fa amul lu ko tënk loo xamante ni mën na koo tee wër si dëkk moom day liggéey ak ñoom day liggéey ak ñoom mhm. te loolu laataam fi jóge ñun ñëpp xam nañ ko Sénégal gépp xam nañ ko kooku ne kon bu fa demee dafa war a dem mais légui nan nga mëna a indee loolu ko ndax da nga bëgg a indi ay jixi jaxa wala da nga bëgg a indi ni indi na président Macky Sall waxtaan ak mom pour bu jomaay ñëwé wala wala wala lan nga bëgg lan nga bëgg wax. mom ndax bo xolé li képp info du information. ali ah, do information léegi du information. mais lan mo nekk ci ginnaw li tax mu wax li ak lan lañuy déggelo ak lan la. ñeen yéen di ngeen yàbbi makki nee naa leen ku yaayam ku yaayam liggéey ak ku liggéeyal yaayam boo ko toppee da ngay sonn Macky Sall France la dëkk bu ko neexee dëkk France Macky bu ko neexee dëkk Dubaï Macky Sall bu ko neexee dëkk fa ka neex ndax nga macha allah gàcce ngaalaama liggéey na ko te mérite na ko te am na jëgam mën na ko Macky dafa mbapat. Macky Sall gëntul ak yeewu tok ca seize ba de Macky Sall dafa souffrir xam yoon ba xam buntu ba xam fenêtre ba xam lal ba fu mu féeti xam dal ba fu mu xam dàll ya fañ koy simbi Macky Sall <laughs> da ngeen koy yabbi lolu c'est pas une information Macky da wara dem France jour beeg

menaces yi di mel ni tulleeg mal li fi nekk méttit sénégalais di ko méttit lu doolan ci wax pétrole gii ñu daan ne lekk nañ ko lekkuñu ko dara desut ak mu ngi nii door dooray feeñ doolan ci wax nga ne yéen seen information daal Macky dem Macky day dem France Diomaye daa war a dem France pourquoi ñu pousse bu Diomaye indi bu Macky kon ngeen xam ne wallaahi bokkul li ñuy naan cin bokkul ca fin barke rasulillahi yéen xam ngeen ko te ngeen damaa bëgg ngeen yàbbi Macky Sall ya bilenko ko yéen yéen yéen doole ruus bo yéen boobu ba léegi gis ngeen rek ma ma Macky wax rek bu tudd turu Sénégal bu do len ba jàmbur te nekk li du aspa asal li mu wax deug la c'est pas une information ça il faut chercher les informations et les donner aux Sénégalais il faut arrêter Macky Sall n'est plus président de la République te bu dee may mom wax deug fa yalla merci rek pour yéen ñun ñi merci ndax baadoo la moom boo ko lekkee ba mu suur bu desalee war tëj bool bi dañuy jël suuf daal di këpp ci bool bi te ñun ay baadoo lañ duñu gërëm ñamu daaw xanaa lu mu def lu bon bon bon am na lu baax benn bu mu def waaye bu mu demee ba léegi yéen contraire de ñi ngeen ànd lañ fee toog di tiitoroo lu mu fi teg dar ki dem moo njaay sama doomu yaay boroom xew boroom boroom borom borom sikkin bi ministre transport yi naan waaw berteer bi lu baax la parce que nag jom dafa jeex nag jom xam naa yàlla moom jom jom bi mu wàccee woon Sénégal jeex na jeex na depuis deux mille vingt ba ñu duggee deux mille vingt et ba léegi jom daa xëy ñu gontu ñun xam naa ni jom moom foog ñu wëraat ko foo ñu wut mooy ñu di wër liin bi nii wër kii bi wee weeru tabëg si ba koor gi foog ñu lijjant ñu wërul ñu jom fan la féete ñu dem dëkkee fa ndax jom dugg ñu ah yenn ñàkk jom la waay yi Macky yàbbi leen ko te mënoo leen ci moom tout xale tous ñaari dërëm mënoo leen ko ci moom haute ñi ñuy war a toppee haute trahison ñu ngi fi fees delloo toppewoo leen haute kon nag yàbbi leen jàmbur bàyyi ko bu liggéey di dugg ci oto yi du dugg ci waaye yow naa la Macky càq-càq Macron boo sañoon sa baay yow mi ko wax boo sañoon sa baay nekk càq-càq Macron càq-càq kat bi envoyé spécial boo sañoon sa baay nekk ko. boo sañoon sa bay nekk cag Senegal, Macron Senegal. senegal senegal jom dal faw yàlla wisaan ñu jom parce que ken nañ ko torop surtout suñu mag yi fi nekk surtout ñi nga xamne politique ak ñun ñi press bi ken nañ jom torop yeey di di wax ci nit ki rek te koku faalew la li jëntu wala talay tardel mbirum Cheikh Niass mu nekk PDG Walfadjri ginnaaw bloqué bi nga xamante ne bloqué nañ ko seeni compte ngir li nga xamante ne moom mooy fayum impôt dalee ko 2016 jàpp 2024 ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. gannaaw ba nguur gi bloqué ay compte bancaire Walfadjri ngir ñàkk fay impôt ñu déglu réaction journaliste bi di Pa Assane Seck. parce que le cas de Walf c'est 2016 2018. c'est ça. <laughs> après li njëkk ñëw sama xel dama ne mais attends nguur gi fi nekkoon di tëj Walf xanaa boobu daf ko rëcc. mënoon na jàppee Walf Wolf, ci 2016 2018 moment bi ñuy tëj Walf ne non Wolf fayul impôt na na fay bu boobaa kenn du wax peut-être amana dinañ né légui je me suis dit mais lan mo tax lolu période bobu waxuñu ko 2024 nu wax ko kon da fay ni nguur bi fi nekkoon dafa mën mel ni ku ballon Wolf. légui nguur bi ñëw di redresser Wolf. ça me gêne un peu motax information bi j'ai envie de la revérifier d'être sûr que de 2016 à 2018 Walfu fayul dama am envie personnellement. mais note d'information bi ñoom ñoo oui oui mais dama am envie mais comment ça se fait que maître Moussa Bokar Thiam di tëj Walfadjri teg ko ci wéy da ngeen une émission di wax loo xam du sachant que nous sommes nañ ne Walf pour 2016 2018 donc c'était plus facile foofu ah Walf lañ kaa parce que fayul impôt ah. mhm. Sénégalais ne non nañ cotiser ñu fay. maanaam foofu le prétexte bi gënoon yomb. foofu le gënoon yomb. je le dis en passant. bref. mais waxal ak Cheikh Niass waxal ak. Cheikh Cheikh ban la bii Cheikh bii la de. waaw bii la bii la waxal ak. Cheikh boo wax Cheikh ak léegi. Cheikh waxal ak Cheikh. de. leer laa wax rek. Cheikh baax na. Ah, jamono ji jàmm laa ko. Cheikh xam nga wuy ma te gars yi bu ñu toogee dégg ñu naan boo problème mu avance tabaski xëy

Légui, qu'est-ce qu'on doit faire. ah mais. la maladie doit nous wax ko euh, Samba qui, ma. eh presse la presse sénégalaise doit se recycler. la presse sénégalaise doit fonctionner dans le sens entrepreneurial du. nous cher Cheikh euh, Niass qui dit pas à Sansek. mooy yëkkati kàddu yooyu le moom nag nee na samp laaj bi muy samp laaj moom mooy que pourquoi nguur gee seetaanoon Walf ba fayuñu 2016 ba 2024 maanaam moom lu mu ciy laaj est-ce que du dañu bëgg a mettre mal à Walf ak li nga xamante ne alors que bu ñu mësaan a wax fay impôt ñëpp benn tali la ñuy ñaari tali yi ci la seen xel di dem muy TFM ak seen TV ñoom moom dañoo ñaaw yaay ñaaw bàjjen ñoom lañuy ñu bële bëri xam nga ni ñaa bàjjen ay bàyyi ñoom dañoo ñaaw yaay ba pare ñaaw bàyyi léegi nag waaw kay mbir yi téer na maanaam are ba yegg nañ ci yare are ba Walf fayal Walf nag seen DG bi nee na leen du ñu am avance Tabaski parce que compte yi ñu bloqué yéen la rekk ba tey la Cheikh Fall ba tey yow la waaw ba tey yéen la ok massa coono batay ci sen scandale du jour Azoura Fall ñu deglu ji ko seen ñëwaat. gëw ma leen gëw ma leen yow da kundi nga nga dem bundu keur ministre naan mu la waaw ah nangam la li nga wax tay ah, man duma ma kenn du ma li may def xam nga li may wax ni li may wax ni man dafa ñëw suma xol xam nga kenn joxuma fooy gisoo ma téye fooy mhm. gisoo sama telephone parce que li may wax nii ça vient du cœur mhm. xam nga Ousmane Sonko saxalu ma lem saxalu ma dara mais suma papa nak mako ko ci si lu bari bu ma legui couper émission dama koy couper mo mhm. respecté bu wam naa ko si moom nag moom su ma woon téléphone ne ma bàyyil dem bàyyil dem ci émission yi damay baax waaw comprendre waaye woo ma nag woo na ma ñaxu ñaari baat na ma wàññil. da nga maytu mhm. wàññi sa nga maytu. xam dégg ndigal waa koy. Mm. wàññi nga ko ak lan. jeex na daa mel ni jeex na de. voilà di la di la di la guddal fan tey du ma ne ba du lépp ma du ma lépp damay ne Sonko guddal fan Sonko amal jàmm. ndax nag sonko ngir yàlla yonent bi li nga wax azura ni yéeg nga koo wax nee na sonko nee na ko wàññil te nga moytu ay waay sonko yéex ngaa wax lii sonko xam nga leneen lan nga war a waxaat euh, azura ne ko mu noppi ba ci kanam doo ñu ko dimbali rek nga ne ko mu noppi ba pare moom day buy wax damay xam day xaw ma azura day xuloo xaw ma day xeex mën daal azura azura jaaxal na ma azura buy wax jàmm sa yaram bi mooy bañ maanaam buy waxtaan waxu jàmm sax maanaam yaram bee cër yee bañ cër yi cër yee bañ waxtaan bi ajoura day xataraayu <laughs> waaye nag nee na nit nu mu munti mel day am kilifa Azoura ku dégg lu mu wax xam ne daa jël Sonko daal di koy bàyyoo boppam bàyyale boppam d'accord léegi nag Ousmane Sonko jëmm rasulillahi laa lay ñaan Ousmane waxal ñu Azura mu noppi tuuti waxal ñu Azura na sangu ba set peñe boobu beeg parfum wu sañse toog ni ci téléphone am bu dee am lu muy liggéey mu dem liggéey na éviter micro yu tuuti sunk am nga sañseen boobu yàlla may na la ko Azura nee na yow rek lay topp nee na yow yaay pàppam bu leen boo ko ni woon daggal léegi émission bi mu dagg émission bi Sonko ngir yàlla ak yonent bi yow waroo woon yem ci wàññi la te te te te te nga moytu yow da nga ko waroon wax Azura dama bëgg fan yi nga noppi nga raar ba ñëpp laaj ah Azura Azura nga gënaat dimbali ñu ci loolu moom buy wax jàmm sa cër yeey bañ cër yi maanaam maanaam lépp mu doxal daal doole la xadar bi nekk xale neex nag barki rasulillahi ci yalla batay ci sen scandale du jour ñu déglu ji boy yi boy yi ne ci tiktok yi ci Sénégal lañ bokk donc c'est normal ñu déglu len ñu déglu ji ñëwaat. gili jili waay su demee wañ na dundu bi de. nee muru wañ nañ ci ñet dërëm mburu kilo bi euh suukar bi wañ ci fik dërëm <laughs> suukar wañ ci fik dërëm yep parfumnya, bi sih? na si sekarang, na Nyent quarante franc ñeenti Agban, agban modes. Wow, ak ban moo des waaw bu doon saya punya ñi wàññi cent franc eh, xeexu wecc nag mën a am si dëkk bi ngeen wàññi sax bëgg ak xam naa ni euh, woyu woyu woyu woyu Aline May bi dërëm yaay mu ngi dër xam nga amoon na yëre bu tudd dërëm yaay waaye yëre boobu amatul léegi dërëm bi ñuy waxtaane moom mooy dërëm bi ñu ñu man xam na gis maa ngi gis nii sama mbokku pël fuuta yi ndax wéccet maa ngi koy gis nii sama mbokku pël fuuta yi nara ñi maa ngi gis nii nii nii ñu xeexuloon nit ak nit ndax wicet ndax ñetti dërëm ak ñeenti dërëm ay waaye mënoon ngeen def juróom rek juróom sax a tane xanaa xamoo leen juróom sax fii ak quelque années ci kanam dootuñu gis juróom day raar ngeen indi ñu ci jamono yi jamono yi Abdou dërëm ñetti dërëm xam naa ni maa ngi gis coow li coow li pelent yang ngi koy gis di diwa mo yoral deureum diw yoraluma deureum dem bàyyi fi deureum bàyyi wo fi deureum bàyyi nga fi ñett deureum bàyyi wo fi ñett deureum boulanger yi mom man mom dama faa baye jurum jurum jurum jurum ba suma kada ko dajale won suma ko dajale won am dekk bu riche da nga indi 200 ñu ñu wecc la ñaari ñaari deureum mu dess fa ben ñu ñu la ñent deureum mu dess ben deureum fofu maanaam munoo dem ba ñu ba ñu ba la complètement déedéet lii nag wàññi bi nag beneen coow lay jur muy coo coowal weccet dërëm sama mbokk yi dañoo gaaw dañu ñun dañoo bëgg dërëm te duñu foowee lu ñu suñ dañuy liggéey dañuy ñafe kon duñu maye dërëm te di nga fi nekk naan démb bàyyi naa fi ñetti dërëm ma fi ñetti dërëm xa am na xale yu góor yoo xam ne ay trian lañ kon nag coow lii na ngeen ko xaar maa leen ko wax ba tey ci mbirum wàññi dund gi ñu déglu ci day Fatou Ndiaye ñëwaat. bés bi ñoko ko d'abord yaangi may rappeler que né bés bi après la tabaski lañ koy appliquer donc à l'instant T bi ñu nek c'est pas une baisse effective. effective ñu annoncé le pour euh, euh, après le conseil je pense euh, sur la consommation. le conseil présidentiel sur la consommation. Yes. alors légui man lima jaaxal moy avant ñuy def conseil bi nan nous mëne avancer des prix alors que guñu avec les acteurs Si démé ci conseil bi bu acteurs yi nangul valider prix yi nu muy démé wala kon exiger donc l'État va exiger ces prix aux acteurs de de de la consommation muy benn point deuxième point baisse le wax mais man après si réseau yi coowal.

ñom ndekete wañi nañ bi yëpp waxaguñu ak ndey mbili ndey mbili gi waxaguñu ak ñom manam conseil bi ñi daje ak ñoñu ba waxtaan ba ñoñu ne waaw nangu nañ ñom defaguñu ko yalla bu yaakar tas yalla bu yaakar tasat yalla bu yaakar tasat ciowal deureum mom yalla nañ ci yalla mussel ci fu mu nekk ñun dañoo sonu ci ciowli léegi nag indi fi ay coowal dërëm jënd naa tàngal xam yooyu jamono yooyu yëfu xale la xale bee jënd naan ah, ma si ngoom dërëm de nga wecc ma dërëm xale bëgg a weccit ñoom kon man ñun li ñuy sibile yëpp xamuñu ni xamaguñ ni gars yi toggaguñu ak ak les concernés dina am dof yu dem ci butike naan man kat mburu lii laa koy jëndee ndax Bassirou jomay Faye wàññi na wañi gi appliqué kuñu ko deureum biñ ci wañ ñak ñet deureum ak ñent deureum téméri deureum appliqué kuñu ko après tabaski lañ koy appliquer pour muy leer ci seen bop yi balaa ngeen di dem du xuloo mbirum deureum te dara xewagul ay ñun fu ñu jëm yalla bu yaakar tas yalla bu yaakar tas yalla bu ñu dajé seen bu yalla na gëna yombat man bëgg naa commercant yi boo acteurs yi boo leen yi ak ñoom ne leen ñun bëgguñu coowal dërëm kon nag yokk ñun ñii ñun ñoo leen baal beneen dërëm bi léegi juróom lañ ciy wàññi ndax nag coowal dërëm moom dërëm attanuñ ko ci réew mi attanuñ ko ba tey ci scandale du jour ñu déglu ji Abou Diallo ñëwaat. Euh, dañu dul fàttaliku. en reconnaissance parce que tey bu ñu jëlee bato boobu nga jox ko Senghor moom mi xamoon ni ni lii am na fi mais yegg seeguñu préparer ressources humaines bi ñu créer SAR. société de raffinage Mon écrit. fi nga xol domaine pétrole ñun niñ ko tambalé commencé exploiter ba biñuy yex ci ñun ci amuñu problème ci texte yi dafa am manipulation bu amone ak désinformation bu amone. pourquoi ça ça ne doit pas être un événement parce que nous ñu la ba paré. yëgoon nañ ko avant que délai bi trois mois bi lay le ministre l'ancien ministre du pétrole wax le président de la république ancien président dem na wax ko mhm. taxi dem nañu jëm ñaajo dem nañu fenn mais li ñu bëgg yek lu bees moy dañu premier ministre l'actuel président du PASTEF daf ñu waxoon ni on pompe le pétrole ici mom ak ñi koy jàppale di ko à l'extérieur. tay on nous parle du premier baril kon rétablir amul kon où sont les informations yi ñu doon wax ba ñu sax hôpital bu ñu créer fi asfat fofu lañu ñuy fa lañu fa lañu parce que c'est le moment de la rétablir les vérités parce que face à ces manipulations à ces désinformations ça nous a fait tomber combien de personnes diviser les familles diviser les activités bloquer l'économie mhm. on nous parle de première barrique alors que yow mi nga xamni ne ko diriger woon ngeen ñu ngi pomper pétrole bi di ko yóbbu Nous mhm. seeni seeni nit di di dem di propagande di wax y a des personnes qui xamni ni aussi tamit c'est le moment ñu xam parce que Aliou Sall tay moi j'ai l'impression de le dire muy Babacar Ngom muy Aliou Sall dafa am sénégalais yoo xam ne dafa jot tey ñu rétablir la vérité muy Tahirou Sarr dafa amoon d'honnêtes citoyens yoo xam ne dañ nekkoon dans le secteur du batiment kenn xamu leen mais ñu tudd leen ci suuf sénégalais yépp am fu ñu leen côté Aliou Sall ñu ni 6 000 milliards teg si batterie tey tooñ ko xañ ko mu perte lépp turam loolu wéy ci 400 famem yàqu ci aujourd'hui on nous par première barrique Aujourd'hui, on nous parle taxi, répartition et Il n'y avait pas d'information à Boudjal, il y avait de la manipulation. Il n'y avait que du manipulation. Il n'y avait qu'une fausse information. Il y a une diffusion de fausses nouvelles. ba du mën lépp moo ci dàqale moom diffusion de fausses nouvelles. te man li ma jaaxal gis nga yàlla bu la mayee benn daraja ba lo wax rek nit dañ koy dégg nang lépp loy wax nay safaan ak dëkk lépp looy wax na nekk dëgg lépp looy wax nay nekk jàmm su ko defee yow ñi la topp tonte yow loo wax loolu la ñu ànd loo wax loolu la ñu gëm duñu ñu gëstu ay nag lañ du ñu ne déedéet ñoom waaw rek loo wax waaw boo leen saaga woon ci seen ndey ak seen bàyyi nu na la waaw yow loo mënti wax waaw genre nit yooyu bu la toppee yow da ngay ragal a àq parce que yenn yi àq la tey ñu bëri jugé nañ kii di alin Sall jàppee nañ ko on escroc jàppee nañ ko on bandit jàppee nañ ko koo xamante ne parce que ku xiif boo ko waxee diw a ngi yor lu dul jeex mu ngi koy yàq di ci sotti suuf te yow nga xiif nga bëgg a lekk te munoo lekk kooku mënta bëgg kooku ku xiif mënta bëgg ku lekk bu suur ba yàq il faut ñu xoolaat suñu bopp il faut ñu xoolaat suñu bopp encore une fois il faut ñu xoolaat suñu bopp yow mi nga xam ne yàlla may na la makkaama ak daraja bu toll nii wax te saa yow waxee ay nit dégg jëfe teel wax dëgg tel joxe une information juste et vrai mayum yàlla la mais boo ko exploité ci manipulation ci wax lu dul dëgg da ngay waye ci ngiro bobu dañ xëc ci ñeneen ñuy ngiro te bu boba day ñaaw ak ñom ne dañu daan wax lu ñaaw ci alun Sall waye barki demb demb japp tay baal ma ak lañ dekké gis nga moytu leen ku yaayam liggéey ak ku liggéeyal yaayam waaw wax ju am solo la moytu leen bu baax ku liggéeyal yaayam ak yaayam liggéeyal yalla baxna Uba pour la première fois débiterie professionnalisé professionnel ndawal musoko ko dégg de am suñu marinade I'm am suñu tiafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald amé ay secret non la débiterie Uba amé ay secret dibi Uba saaf Ouba, Michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentad Ouba, bol Ouba. Kaimawhle. ma wax la dibi safe 77 629 0000, fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe Moi dibiteri Ouba fa poulet Nehe, mui dibiteri Ouba te nag le dibiteri Ouba commandel nous livrer le fangane, Boule ne tamit nga Tok defal say commande tabaski defal say commande bo amé xew defal say commande boy dalal ay nit defal say commande nga xamni débiteur débiteurs yi Uba da lay defaral bu tok do defal dara débiteur yi Uba livré la cey Uba moo jaaxal réew mi